xéewal ak Supersonix rek Supersonix Money Transfer ñoo dellu si waat indi leen xéewal bu neex neex fii ba di jeex waaw fii ba weeri di jeex mën nga am sansu wit benn saaku maalo saa xaalis fii ci biir Gambia bàyyee ko foofu sa UK Europe US Canada ak Switzerland ak Supersonix Money Transfer <laughs> xanaa lii neexati na doore ko tey ba weeri octobre di jeex mën nga win benn saaku maalo saa xaalis fii si biir réewi Gambia bàyyee UK Europe US Canada ak Switzerland téeméeri saako ñoo fi nekk kon gaawal nga bokka ci téeméeri nit yi nga xam ne mën nga am sans win ci xéewal yi nga xam ne kenn dootu ko naataable ak Supersonix Money Transfer bànneexu leen ci suñ yónneekaay xaalis bi gën a wóor gën a gaaw gën a noppale ak yónneekaay xaalis bi gën màgga màgg ci biir réewi Gambia te duñ la fayeeku dara saytu leen ñu Google Play Store wala Apple Store nga mën a bindoo si suñ app bi di Supersonix Money Transfer app chuu cay ak Supersonix rek You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector. You want to know about the governance and management of the arts associations. The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them and most importantly, offer solutions. ñu koy defee saa su ne si Semester Avenue ah, wax naa leen ko nag roy du niroo piir te ah, piir moom ah, saay boo leen ko gisee rek di ngeen koy yëg kon nag Gambian Talents TV di seeni télé di suñu télé wax naa leen ko Eh, télé yi bari neen si biir dëkk bi waaye it bokkuñu te it nduroo woon eh, Gambie nag ñuy faral di célébrer ñi nga xam ne nag ñoom leen am eh, saa su ne da ngaa dégg rest in peace ah, ndeysaan diw defoon na fi lii kii la fi maamam defoon lii waaye bu kooku di dunda ndax célébrer ngeen ko Gambian Talents TV tey ak Semester Avenue dañ ñëw nag jàkkaarloo ki nga xam ne ah, du ma ne ndaanaani Banjul waaye damaa ne ndaanaani Gambia ah, parce que su li ne gis ngeen ko gis ngeen ko si wàllum aat gis ngeen ko si bi ah Gambia tey kan laa leen inel ki nga xam ne nag ah, moo nekk ku rëy nekk koo xam ne nag macha allah ah, yàlla jàppale na ko waa Gambia xam nañ ko waa Gambia miin nañ ko saay buñ déggee ba tey jaaxle man suma ay mas su jaaxlee rek bugg a xam wàllum history foog rek ñu woo ko ah, mu nekk loo xam ne nag dañ ko see jaajëfal bu baax a baax ñu toog ak Ibrahima Jawa tey nag moom gisuñ gani la yi gisuñ ah gisuñ gisuñ cuubi gisuñ yu bëree bëri ah soo tey nag yi lañ ko gisee xamoo ne daf dee sol ay jiin waaye ah yong yong yong maan la ba léegi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Fatou Samba ñu ngi laa dalal di dalal ñi nga àndal yëpp waa Gambian Talents yëpp di nuyu mbokki seetaankat yi fu waaye mu di nekk ci àddina si. di salaamaaleykum dal leen ak jàmm. waaleykum salaam euh, tey nag euh, ñu toog ki nga xam ne ku mag la ki nga xam ne wax dëgg neex yàlla euh, contribute na lu bëree bëri si Gambia Sone Jaawo ñu bëree bëri dañoo ne wàllum art théâtre lañ ko xamee Sone Jaawo doo gaaw a dégg ne Jaawo ko jàngala waaye it macha allah yàlla jàppale na ko be dafa am master degree in li nga xam ne nag mooy community work askan bi jox leen ma seeni noppa wax naa leen ko soo leen musoon a dégg mu explain history am tey yëpp ay leer fii. di leen jénee li nga xam ne waxut ko woon ah, mété li nga xam ne mu ngi koo toog a si wax naa leen ko dama dee listiha listiha rek laa mun damay listiha di ko xool di xool kii am na lu ma gis te gars yi ko Ibrahima Jawo da nga ñëw holiday waaw ah, faatu dama ñëw holiday xam nga ab sàkket soo ko amee sax léegi-léegi baax na ngay doxantu ci booram di seet ndax amul foo xamante ne war nga faa fataat war koo jaaji taxawal ko mu gën a dëgër ak yooyu moo tax liñ dee wax ne ngi ci ko waaye xel ngi ci suuf Ah, ñu nekk bitim réew na baax na léegi-léeg ñëw daw ñëw nemmeeku si njaboot gi ndax ñun ñooy mag léegi-léeg seen xale yi seen toogaay seet suñ projets yi ba pare saafu wante waa réew mi ñi nga xamante ne géej nañ leen a gis ak ak dëkk yi nga xamante ne xew nañ suñ gannaaw baax na ba pare ñëw it seet li nga xamante ne mooy dox ci réew mi. ñu ngi si corona. Mhm. ma ne ko corona taa taa na ta taaya taa den soona si yow corona. yow jamono corona bi tooguloo seen Angleterre bi nga xam ne fu mu nekk nii mi yëpp news bi yëpp Angleterre a ñëw nga ñëw fii mbaa óor na. ah óor na óor na na xam nga ñun bala ngaa ñëw da ngaa def test anyway. pour mm. euh, wane ne di nga mun a génn. soo su fekkee ne yow positif doo mun a génn yàlla dimbale ñu ñu def ko balaa loolu sax euh, ñun tam léegi-léeg dañ dee soxla naaj ndax waxtu bi sedda na sedda goo xam ne te ma maas yi ñu ngi faa mag. Mm-hmm. fu mu nekk faa sama ñu ngee màgget. Mm-hmm. dañ ko bañ rek waaye ñu ngee mag. te bu sedda gi jotee léegi-léeg di nga yéeg yenn façon yi sedda yi sa bari nga gis ak ñoo xam ne asian si sax uh, ak africaine si in general dañ naan vitamine D tablets pour mun ñoo dimbale pour naaj bi nga xam ne moom lañ soxla si suñu yaram man every day maa jël benn so loolu tax léegi-léeg na dee baax ñu ñëw ci naaj bi mun a ñaxa nga jëlaale naaj loolu yëpp dañ ko dee soxla yaram daf ko soxla ndig vitamine D bi jógee ci naaj loolu der bi daf ko soxla te nekkul der bi rek yax yi dañ ko soxla ndig looloo dee waral yax yu métti yeeg yooyu so léegi-léeg nag na dee baax pour ñëw tam euh, meemee ko si nit ñi ak ku tam mm. ndax liggéey bi daf dee stressful nekk ci yeneen soxla yéeg yooyu noonu loolu yëpp looloo tax nag ñu ñuy day ñëw pour euh, noppaleku waale it depuis kañ nga fi ne ah, maa ngi ñëw depuis on the 26 ya holiday indi na ma moom suma jigéen bu baax boo xamante ne dañ ko doon daf doon sëy ñuy ko wax Ali Seka mu doon sëy si cooc bi suma jigéen bu baax a baax a baax suma niti kóolare man nag euh, yàlla dimbale na gis nga man suma niti démbay suma xasee téyee kenn refaatu téye naa la noonu laa dee noonu laa mel ah, mu def ma brother of the day ma ñëw na pour atteindre le programme bi lolo tax ma ñëw. ah ngay lolo amna solo kon nak ah, yena ko gess Ibrahima diaw moy suñu gan ah, di seeni gan di gani askan bi di gani ñepp ah, kon nak Gambia li la daf di neex sa su ne ñuy tok ak semestre yi di waxtana ak gars yi nga ne da nga jëm mak mala laajte la ñaata at nga am. <laughs> Fatou man man mak na de. mag naa de eh, ñaata at nga am na leer na leer na leer <laughs> Fatou bu ko leen dem na leer ñu ne Adama baro bu ko leen de man ma bu ko leen dem. juróom fukki adi mom moom na. waye nak fekkee naa lu bari de. toog yàgg naa toog ci mag ñi de. a foofu daal laa yem. ah nga fukki at yi moom manqué na. manqué na dese naa yeneen ay ati ati at. ñetti at. danga dem maaka. waaw demaguma nag waaye macha allah yàlla xam na ne it was my intention pour ren ji bëggoon naa dem ah, soxna si sax bettee woon na ma ticket pour ma dem yàlla xam na loolu. macha allah waaw waaye corona bi ri corona bi ñëw xam nga yàlla moom liñ de wax ne jaam a pexem yàlla ak dogalam waaye bu soobee yàlla bu ko yàlla dogal. danga yaaga nekk alaaji sa te demoo maaka. parce que ah, dafa am ku ma doon waxal ñu weddi wante. waaw so semester avenue is here to clear the doubt. mi ne ko waxtaan ak moom non de moom maaka ah wax dëgg ne yàlla ren la façon éene pour dem ma dajaleel suma bopp ba pare fay ndike soxna si it daf ma jëndaloon ticket moom it bëggoon ma dem ah jigéen ju baax a neex jigéen ñi yéen ñiy seetaan jàngaleen si jigéen ji de ah ah naka la tudd ah, moom Aysatu la Marana muy pol bu ma jàppale ay la Marana jaalu jaawo mhm. wax dëgg ne yàlla uuf njaboot gi doon yaay doon jabar doon soxna doon xarit doon àndandoor nekk nit ku am kóllëre. macha allah ah, Fatou bu la yàlla dimbalee say wërsat la. Mm-hmm. bu la yàlla dimbalee may la jabar ju baax wala may la jëkkër ju baax da ngaa mm-hmm. nit koo xamante boo amee benn mu jël genn wàll jox la wala jël ñaaram jox la. Mhm. loolu sant yàlla la. foo leen xamante. ah Angleterre lañ xamante nag. moo la Thiès la yaa ah, ah, na leer de na moo la man dinaa leeral lépp. waaw ah man dama teel a sëy. man mhm. Fatou dama jël A levels tey ma takka jabar si Elexi. déedéet man dama jël A jabar. si biir Gambie Gambie suma doom bu njëkka sëy na ay. four five months ago. Mm-hmm. Uh, since twenty three twenty four léegi. kooku uh, suma ta moom fii la juddoo ak ki a ci ko Mbakari ñoom ñëpp a ngi Angleterre ma dem Angleterre waaye xam nga yàlla moom. Mm-hmm. mooy weddi mbir te yàlla moom mooy jo sëy bu nekk dafa am bakkan. Mm-hmm. bi ma demee nag yàlla dogal lim dogal. Uh, ma jëloon fi jigéen ju baax moom it ndeysaan ku ma muñal. Euh, ba ñoo dem school lañ ànda euh, dem ba jeexal ndeysaan yàlla mm-hmm. boole ñu yàlla may ñu njaboot waaye nag yàlla emal ko fa mu nekk suma jigéen ba tey da ngaa gis dafaa ñëw si suma rakka yi dafa kool daf ñoo kool xale yi dama leen a kool weer bu dee bu jot ma ne leen jox leen ma nangam pour seen yaay xam nga mm-hmm. loolu su fekkoon ne diggante bi ñaaw na du am mm-hmm. suñ ma ekkatee ne jox nañ ma hundred pounds pour seen yaay ma ne leen teg naa ci nangam xam nga loolu tam su ma nekkoon ku bon ma ko def wax bi ma ñëwee ekkati naa téléphone ne ko ñëw naa xale yi nangam ak nangam lu ko xale yi jox ma jox noonu man noonu laa demel te jigéen bu nekk nit ku nekk da ngaa xalaat ni démba mun na am neexoon na mhm. ah, tey su naxaree sax na nga fàttaliku démba man dama dee bugg a fàttaliku nit bu dee benn fan lañ jëflante taranga sax ma fàttaliku loolu muy mhm. ku baax mooy maay use opportunité bi pour gërëm ko muy Jalika Maas mhm. ah, ma dem Angleterre nekk fa ah, yàlla wéy di suñ diggante ma jël fa beneen soxna muy ki ma dencal nii. Ah, yàlla boole ñu nag ah, ma ama moom it njaboot wax dëgg suma doom yi ma jur fii mu jël leen uuf le ma jël xale yóbbu leen mu doon seen yaay doon seen papa doon seen lépp xam nga ne loolu ku baax ku oyof ku yaatu rek mooy mun na xëjoo njabooti jàmbur mm-hmm. euh, nekk moo fa tey waaye xale yëpp a ngi ci ronam te loolu sant yàlla la bu baax a baax a baax mm-hmm. macha allah wax naa leen ko Gambia gis nga den war a di waxtaan olof yi nag den de wax ñu ne ñàkk waxtaan moo indi réeroo nen jàng ñun nen bàyyi di wax ne xay fogoon naa ko nii la fa demee déedéet faatu ko yéen nañu yàlla musal su luñ euh, euh, sëy time ndaw gis nañ ne xale yu bari su nekkee ndaw dañ dee ragal a dugg si li nga xam ne mooy sëy you know um, right now da nga ne maa ngi am xaalis xaaral ma xaaral ma gën a siif ñu gisoon nga nekk koo xam ne ku fiimoon nga biir Gambia nekk koo xam ne euh, jamono yooyu soo ne soo waxutee jaawa rek waxuloo kenn si aar bi you know euh, fes nga lool mun nga li nga def bi nga bëggee get married at a young age was it force ay parents ñoo la force na yow rek yaa toog nga ne ah fu mu nekk cappe yaa maa sonal xaaral ma takka waaw foo naa it's the latter mm-hmm. <laughs> ndik euh, su la yàlla bu la yàlla dimbale wut dafa doy waar nga nekk si sa digg jamono nekk ndaw foowiite jaaw a jaaw ji nit ñi di la toppa xam nga ak yooyu ma gis ne leena moo fi sës benn teel a sëy euh, setul wala def ni ñeneen ñi rek mhm. euh, toppa ci lu ma neex rek nekk ci tali bi mhm. di def naka sudut noonu ni kon tey ji euh, xale yi ci pelu fii ñu ngi bari mhm. moo tax nag ma ne xaaral ma teel a te bu yàlla defee nga nekk nit kersa bari kersa am jom te nga jógee ci famille boo xamante ne xamuñ yu mel noonu daf dafa am loo xam ne nga ko jombale sa boppa nit ki tey loo loo am rek yaa ko may sa boppa faatu te doon ndaw taxul nga ñàkk root sa boppa bi am fula fayda and all of those things te sooy séntu sa boppa ëllëg feena am na loo xamante ne ko jombale sa boppa lii moo tax ma teel a sëy waaye it wasn't forced or arranged or anything uh, it was a mutual thing muy koo xamante ne dañ yàgg a ànda uh, nekk Red Cross together yàlla boole macha allah loolu na dega. dégg ah jamono ji nag ya limbe dëkk bi xaw na yëg nga ko na yego ko jamono ji Gambia ah, su ne semestre yi limbe waaw ci ñu dega ne. yow dal legi NPP nga mana bu baro nga. waaw loolu laa dégg te ma ne waaw. foog nga di sama xarit nga wax ak parce que ko wax de. da ngeen mu leer rek. rek rek na leer. Mm-hmm. man duma di nuba dara faat xam nga gis nga mbir boo ci bokkee rek mm-hmm. def ci ba jeex tak mm-hmm. dama dee wax ne ñun amuñ leen lu dul benn Gambie gii lañu am faatu parti bu nekk nag ut si na ma xam nga nit ki man duma dee blow my own mm-hmm. waaye xam naa ne xëj na ah xam nga naka laa ko waxee waaye xëj na séntu nañ lu bari ci yow ci wàllu jàppale ak yeneen ak yeneen parti boo xalaat nag uyu si na commencé ko ca UDP UDP su ma yaay UDP la moo nekkoon yaay compil fii. déedéet soo ko bàyyi xel ñoom yollo lañoo def. Ah. UDP su ma yaay waaye nit ku nekk ak li nga gëm ak fi nga xamante ne fa nga gis ne. foofu nga man dama am principles. Hmm. juddoo ci réew mi ne fi su ma ndey juddoo ne fi su ma baay juddoo ñoom ñu am luñ gëm am fu fuñ bokk man nit ma juddoo ci réew mi am fu ma bokk am fu ma far. Hmm. noonu la ah, parti boo xalaat nag. waxtaan ne nyoman man su seen kilifa waxtaanu ta man yónnee nañ nit ci man mhm. waaye Fatou ma toog càmbar seet liggéey gi nekk ci mi ak li ci mi asesal suma bopak gis nga man dama dee teylu kaakataar boo gisee mu mucc mhm. bari melokaan muy dox di def ndankan ndanka botam bi muy ko sànni ci kanam sànni ko ci gannaaw sànni ko ci ndeyjoor sànni ko si càmmoñ bala moo seeki mhm. ak tey moko ko ko may dama chambar bu baax seet li nekk ci réew ku ut na ma ma ne feeg ñëwuma ci ground bi pour assess the political landscape du ma support benn parti. egsi nga léegi fan la. léegi nag. ñu ngi ñëw. jaawoo ngi biir NPP benn jeex tak nag. N. N. National People's Party. déedéet kay jeex tak Fatou Samba fii laa ko wooyee. yow nag yaa am di exclusive aspect of it ku nekk laaj na ma waxuma ci dara ma ne pat ne teg keroog gis nañ ma ma sol sumaay dara waaxu dem ci aaj ba ñu ooma ma uyu ji dégloo ji seetaan gis lii xew. duga nak ci réew mi dem note Bank dem yeneen place c'est développement Far Samba and nañ Banjul sanga duga nañ bir Banjul gis nga développement gis nga tali yi nek Banjul Banjul dang dan duga bir Banjul het di la rëy amatu fi nga xol tali yi tey mun sol dala yu black la sol duga na ci bir deka yang gene te pondewul ya ngi dega bu njëkk bi loolu fi bu timis bu la fekkan fi waxtu wi ni nga di def di tàccu yoy te Banjul lolo amatu fi kon nak gis nga liko war ak liko jar moko jar ya ngi dega jaama giñ fi am dañ ko nimisee woon démba ñu gis ko tey war nañoo sàmm loolu ba buñ ko ñàkk yaa ngi dégg Adama Barrow may ne ni jaama Fatou Samba mhm. jaama gi fi am aafiya gi fi am tawfiix gi fi am loolu duñ nangu kenn ku ñu ko yaaxaal yaa ngi mhm. dégg xasu fi mag saagu fi nit dugalu fi nit kaso déggaa guñ kum fi rey dégguñ kuñ daanu sakko wala leneen ak leneen mhm. Fatou Samba gis nga nit su la mayee jaama rek may na la lépp mais naa ngi noonu suñu human rights ko dafa yokku Fatou Samba ci àddina si te ñun faruñ fenn lu dul Gambia te bu njëkka bi dañ daan ruus yeneen ñuy ko dégg si suñu réew tey jii bi fi depuis 2017 ba léegi ah, yaa ngi dégg dégguñ fi yenn fa suñu fitna yi yenn fa suñu mbir yoo xamante ne tax na suñu wàlli démocratie di dem daaw di independence of the judiciary tey ji gis nañ ne tey yow tey Fatou Samba boo jotee woon a nguur gi am nga sañ-sañ ñu waaxu dem dem Supreme Court am nga sañ-sañi woo tuddi judiciaire yi yóbbu leen euh, samont leen te mun naa am ni in jooju si fa nekk ñoom ñëpp dañ indépendant tey loolu yëpp ci démocratie la bokka tey ñu ngi wax multi party system barka démba rek lañ fi génn ci élection over 16 political parties am nañ ko tey te loolu géej na fi amu fi woon yaa ngi dégg li yëpp dafa bokk ci loo xamante ne dafa sàmmandaay di wane li nga xamante ne mooy démocratie jëm kanam tey jii ñu ngee toog nii di wax tey Adama Barrow bu defoon naka su dul noonu ci media bi laay toogee wax ko ko démba ak barka démba loolu tumaranke woon na fi kon bu fekkee ne média bi dem nañ ba am indépendance loolu it bokk na ci mandargay démocratie kon du wax ni am nañ 100% démocratie ndi am na loo xamante ni bugga nañ ko pour mu am ci réew waaye lu mu bon bon bon ñu ngi tegu ci yoon bi te yaakaar naa nañ fa egg. gars yi xanaa man waaruma yéen man mi dama waaru de dama logoon pare waaye tey nag ah. ñu ñëw si wax ba Ali Kalaj ba ma ne ko break nga ko daan waaye Ibrahima Diawa gis neen ne eh, semestre yi ñu ñu ñëw si biir dëkk bi den bari ma gis si ñoom Baba Dia gis si ñu bëree bëri ñoom. ñu ñëw ñoom ñëpp gis naa leen. waaw yaa maa ngi xool bu baax a baax waaye ñu gis Ibrahima Diawa ñëw rek. <laughs> demaleel NPP. xanaa dafa am looy sintu si baro. <laughs> waaw na leer bëgguma mu leen dem fii leen dem dafay am xaar leen ma ñëw. ah Far Samba. Ah. ah dañ ñëw rek pour jàppale réew mi. Mhm. jàppale nguur gi. lu ñu ci fekk ñu xam ne suñu wërsëg la. Mhm. dara ñu nag. Mhm. Far Samba. foog naa ne dara jombuñu. yoo xam nga fi maa waxee hmm. ah, luñ am ñu xam ne xëy na mérite la hmm. yaa ngi dégg bu ñu ci dara fekkee nag ñoo xam ne dara ñu ci fekka waaye ñëwuñ ci ne lii moo tax ñuy cee ñuy jàppa hmm. dañoo jàppandik doomi Gambien lañ jàppandik citizen lañ nekk doomi Banjul ñu gis lim liggéey biir Banjul gis lim liggéey Gambien baroo fay sa ticket na fayet la ilaha illallah kenn fayalu ma ticket man kenn fayalu ma ticket kenn jëlalu ma hôtel yaa ngi dégg dafa am ñu jëlal hôtel ah si xam ah dama bëgg mu leer nek da nga ne ndax moo fee suma ticket ma leeralal suma bopp man kenn jëlal ma hôtel man suma kër laa ne ah. man jëlaluñ ma hôtel jëlaluñ ma eh, naka lañ ko wax air ticket mm. maa jëndal suma bopp air ticket man dama bëgg mm. flight ñu cancel ko ma bëggaat flight ñu cancel ko ma feyaat an other airline ba léegi suma flight ticket yi jotaguma xaalis bi sax pour wan la sey moo ma doon indi ak ñëw seet si suma njaboot gi fi nekk muy suma raka yeeg suma doom yi fi nekk ak yooyu ba pare ñëw seet si mbokk yeeg am di jaam yi lii moo ma indi ak sëy lii moo ma fi indi. rifoonul la. man laa teew ma ticket man utuma ku ma rifoon wala ku ma rifoonul waaye li nga xamante ne mooy dëgg tey yoon loolu laa gis moo tax ma dem ca. suñ la rifoonee di nga jël. waaw bu ñu ma jël ba macha allah ndig doomi réew mi la ah buñ ko jox ñeneen ñi. war ah. man foog naa ne war naa ko yelloo tam. Ah. ndax man uur na ma ne man ak suma gàngoor ak ñi ma àndal bu hmm. buñ jógee fekki NPP NPP nañ xam ne am nañ ay gan. Ah. waa politique ba toj na tojis ori gars yi tojis xanaa na mu leen tojis ah lii kaani mbii Ibrahima Diawo ko toj biir Banjul xam ma na yëg ngeen ko na yëgu leen ko ku mun sa morom duma ah Ibrahima Diawo nga ñëw ñu ne NPP mhm. ah, ñu gis NPP nekk na parti boo xam ne moom it mu ngi ñëw ah, ñu bëree bëri bokkuntoon waaye jéem ne ñoo bokka ah, du ma ne yow interest moo la dugal si NPP hmm. non man interest dugaluma ci comme li ma la wax dama nekk doomi Gambia ma yàgga assess te follow government seen development plan si ñu am ma xool gis road network si nga xamante ne moom lañ def waxtuma Banjul sa jëlale naa ko dama dem keroog ñëw mi ma dem euh, yaakaar na bakalaar lañ ko wax xaw ma euh, boor yi ba Bakindi mhm. ma gis road network bi nga xamante ne moo fa nekk euh, ma def suma own investigations ma understand ni xaalis boobu noonu nekkut loon bi ñëw loan boo xamante ne réew mi jël nañ ko. Mhm. fenn xaalis la boo xamante ne government ñoo raise fonds si fii nii ñoom seen boppa ñoom ñoo raise fonds si fii nii loolu lañ jël delloowaat ko ci réew mi te loolu bokk na ci li nga xamante ne faa indi jëm kanami réew yaa ngi dégg Fatou Samba ah, ndax bu njëkk bi dañ daan waaxu dem uti loan IMF ay World Bank ak yi eh, bu ñu la joxee yi ñu séntu nga fay fay hundred dalasis loo xamante ne faa nekk bor yoo xam ne suñ séddi ñoo ko ñooy am pour fay ko ma gis baro bi mu ñëwee ba léegi effort si nga xamante ne def na ko in terms of uh, our economy pour gis ne the cost of living wàcc na uh, mbiri rent ak yooyu noonu uh, salary yokkal nañ ko to 50 percent pension si yokkal nañ leen yii yëpp ndax boo dimbale benn nit ka ngaa dimbale ñun dañ fàtte ne Gambie ñun dañ aman extended family system benn nit mu ngi am na 20 nit wala 17 nit yoo xamante ñu ngi ci gannaawam te yow boo dimbalee Fatou Samba mi dimbale wala Fatou Samba dimbale ay doomam dimbale nga tantaam dimbale nga nijaayam dimbale nga papaam yaa ngi understand ndax loo am di ko jël yóbbu ko sa kër ga kon yow bu ñu lay yokkalee salaire dafa mel ni ña ca gannaaw dimbale nañ leen gis naa bu yaagut keroog bi ma demee ci aaj bi gis naa ñu jox xale yi yuut si te ma dama bëgg a mbiri ndaw ak jigéen ma gis ñu ekkati xaalis jox leen ko pour dimbalee leen xale yi nga xamante ne ñu ngi in business ñu ngi set up businesses bugg a expand wala extend seen businesses ak yooyu noonu jox gis naa ñu jox leen jigéen ñi nga xamante ne set up nañ ay organisations ay women groups ak yi pour ñu dimbale leen ñoom tam gis naa ñu ekkati xaalis jox leen te loolu mooy jëmale réew kanam ndax ñooñu li nga leen a jox ñuy cee liggéey jigéen ñi ngaa jox ñuy def ay cuub di jaay di jël ay eeta di jaay dem uti uti diwtiir uti euh, marchandise dëkk bi indiwaat jaay loolu dafaa desaat fii ñooñu liggéey fay ñeeneen ñu dimbale ñeeneen loolu bu yàggee développement dina am euh, comme li ma wax li ci li nga xamante ne moo fi nekk ci wàllu développement ci diir bu gàtta bii nii da eh, li ma seetlu gis naa ne lu bari la dëgg la nag it needs the political party needs rebranding te xam naa ne ñun ñu bëree baree bari dinañ ci jàpp li nga xamante ne moom lañ ci war a am ñoom pour ñu jàppale leen rebrand ko bu ko defee nit ñi xam political party bi lan la ñu jaay seen policies ak seen ideas dinañ ci jàpp bu baax a baax Ah, ni dinañ ci jaffa bu baax ba ñu gis Banjul wax dëgg neex yalla liggey baang fi mhm. ah, place bi rafet na man wax na ko ganaari kenn nenu ma mhm. ah, te tamit dëkk bi suñ dekk la mhm. taxawuma ben parti taxuma juk tay kenn duma ma juk parce que man mi yeen mënu len ma égati man suma len di boppa laa bëgg taxawal <laughs> ñu ñew gis Banjul ñu ne Banjul nekkut baro koy liggéey kantu la koy liggéey xam nga so waxee loolu da nga mistake li projet yi central government la central government ñoom ñoo boo xamee central government ni moo doxee mm. ñoom ñoo responsible major roads yi mm. Banjul nag was neglected for years mm-hmm. yaa ngi dégg for some reasons um, gis nañ ko so baro bi mu ñëwee si la wane ne moom dina liggéey Banjul di project of 35 million dollars government ñoom ñoo ñoo ñoo wook ak Hadim Gay pour pre-finance lii mm-hmm. mu bokka ci muy sewage system bi muy mm-hmm. wàlli canal system beeg ndox meeg yu mel noonu Euh, nga gis ne bu njëkka bi Banjul euh, nawet bu jóg jeexee léegi yàggul bu fekkoon ne comme nawet yu njëkka yi la ni kon waxtu bi yaa ngi gis ndox mi tàppa tàppa yi fi mu nekk mhm. soo léegi gisuloo fi loolu xam nga loolu kon sant yàlla la understand nga ndox mi wàcce ren Banjul bu fekkoon ne Banjul tali yi baaxuñu woon si wéj bi baaxut amuñ woon ak proper système ni kon ndox mi ba léegi mu ngi taa Euh, Banjul ñoom ñoo central government ñoo nekka di ko liggéey it's not a project of the council xam naa ne bu ñu paree nañ hand over loolu council bi pour affaire yi maintenance ak yooyu of course war nañoo liggéey ak council bi loolu moom dafa nekk xel sax war na ko mun a nangu waaye project bi project yi Banjul la du project yi local council bi local council bi ñoom ñoo war a responsible pour fii de road si waaye road si fi nekk yëpp li ko ñi ko liggéey moo nekk euh, naka lañ ko ooyee central government kon nag yéen a ko déggal loolu la Ibrahima Diawo wax Ibrahima Diawo ñu gisoon nga taxawoon li nga xam ne mooy meeyo Banjul nekkoon si ñi nga xam ne taxawoon nen euh, ku xeex ne Banjul mu éega fu mu war a éega euh, coow bari euh, xuloo bi bari wax bari famille yi bari tamit tas ah am de nekkuma ko wax moo am ah su ko defee nag ñu gis ne yow it nga taxawoon mm-hmm. all of a sudden nekkatuloo fa you know because of um, certain reason hit na with IEC ak yooyu noonu ak seen loi mm-hmm. um, da nga parewaat ku taxaw waaw Fatou. ñu ngi gis ne dem nañ si ay kër. ah maa ngi dégg ah, ñenn yu bari ñu ngi ñaanal ñu ne yéen a ko yàlla may buur Banjul mu nekk buur Banjul maanaam mu nekk ah meeyoo bi nga xam ne moo nekk Banjul fii ñu ne mun nga ko war na koo am. Ah, Fatou xam nga yàgg baawul dara te addina fa gudd a tànk life is so full of possibilities to have no one answer waxuma ne damaa taxawaat pour meeyoo waxuma ne maa taxawaat pour place bi wala place bi Euh, man bi maa ñëw pour mayor si ay nit ñoo ma utal si ne dañ bëgg pour taxaw pour mayor si te yow xam nga am nga ñoo waxal dégg nga li ñu wax euh, te nit ku nekk sa genn wàll nga moom sa genn wàll saay nit a ko moom mhm. euh, Fatou tey jaawo mun naa wax ne bëgguma taxaw waaye tey réew mi ñu jógoon ne ma dañ bëgg nga taxaw nga jiite ñu aw ma sañ-sañ ne leen déedéet du suma xel du si suma xalaat fu mu nekk ne dama bëgg a taxaw loolu xalaatuma ko yàlla xam na loolu waaye nag bu réew mi pare woon ne ma yow lañ bugg nga jiite ñu bugg nañ nga taxaw bu boobaa dinaa waxtaan suma njaboot seet bu mu nee nekk mu nekk. ak ah, ñu bëree bëri ñu ngi wax ne Rohey Malick Lowe maanaam jigéen jàmbaar la. Ah, ah, def na fi lu bari biir Banjul. fu mu nekk nii képp koo xam ne bëgg na moo taxaw mayoral election dafa war a relax xam ne jigéen ji daal yàlla may na ko te ay góor nekk neen fi mm-hmm. tey deful lu mu def gaa ya ko wax du man maa ko wax. Mm-hmm. su ko defee rek ñu bëgg a xam ndax di nga ñemee ku taxaw ak moom. waaw Rohey suma sista la suma mag la suma suma la daal. ah dara ñaawut ci suñ diggante wala yàlla xam na loolu dara ñaawut ci suñ diggante te dama de wax waxtu mu nekk Fatou Samba ne teen asamaan jarul buuxante fu nekk fu nit taxaw ku nekk rek mun ngaa gis mu ngi liggéey lu rafet di try moom tam of am na yoo xamante ne ay mbir la yoo xamante ne ah, léegi-léeg buñ ko gisee dina njëkkati suñ téléphone call joxe suñ observations waxtaan ci mu nekk koo xam ne dina dégg tam wax dëgg kuy waalal yàlla ah, waaye waxuma ne damaa taxaw wala taxaw ma te bu fekkoon ne damaa taxaw tam am naa sañ-sañam mat naa ko am naa xam-xam bi te mun naa ko doxal ku nekk si council as a manager for 17 years. Mm-hmm. yaakaar naa ko ko am na enough experience pour pour ron Banjul City Council bu ndaw bi. council Amérique ak council nekk Angleterre ak council Gambia. dafa mel ni yow mi toog ci saal ak waaxu dugg ci cabinet. Hmm. waaw wala mun ku nekk ci mbedda waaxu dugg ci cabinet bu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw bi ma ron bi ma head man. département bu ma xeet over 43 staff ñoo fa nekka man nekka Gambien nekka nit ku ñuul 43 staff ñoo nekka si suma ron ñoo xamante ne am na ñeneen ñu nekka si seen ron kon yaakaar naa Banjul City Council lu ndaw a ndaw a ndaw la pour man te loolu maa ngi laa wax man staff yoo xamante ne ñoo nekka directly under my team waa xam nga angale yi ñoom wax dëgg neex yàlla with all respect to Gambians xam nga ñuy dañ dégg daaj soo waxee rek si saa si ñu xam nga expérience dafa kaaw mm-hmm. xam nga jàng dafa kaaw mm-hmm. am fulaa fayda dafa kaaw mm-hmm. yaa ngi dégga te tabarikala euh buñ catu suñ boppa waaye bu dee expérience la bu dee jàng gi la muy ci wàlli xam-xam gi bu dee fula gi la budé dee fayda gi la bu dee jom gi la budé dee gi la ah. léppan ci jehna waaw sante yàlla ma ne ko sante yàlla am nañ éné defal Banjul loolu lolou waxuma Banjul sa gambi yëpp lay wax loolu ak loolu ndik am nañ contacts Fatou bugga nañ Banjul ak Gambie jëm kanam yaa ngi dégga bugga nañ lépp loo xamante ne ah, international community wala other developed countries ñu ngi koo am gambe am nañ ko te Banjul war nañoo toll foofu Fatou Banjul c'est capital city Banjul tey war nañu am housing our old houses war nañ koo war nañoo jéem a seet naka la ñoo joxee Banjul that face lift comme li ma daan wax di sewage system dëgg la baax na waaye ñu make sure ne maintenance bi it's ñu seet our wetland lan la ñu mun a def ba make sure ne safeguard nañ di wetland you know di flora and fauna indi the Gambia muy suñ deneen li ñu wóor yaa ngi dégg muy tan bi for example tey jii ñu ngi gis ports baa ngi encroach onto the city lan la ñu mun a def pour stop loolu ñu jéem leen a encourage ñoom ñu expansion bi nekk see see inward rather than nu ñu ko wax outward onto the land yaa ngi understand yu mel nii ah things yoo xamante ne kansul bi wala ku koo xamante ne mooy jiite Banjul war na moo mën a liggéey loolu benn tey apart from housing bi ak yi Banjul tey taxe gi nga xamante ne mooy dugg biir Banjul tey yaa ngi bëri clotte yoo xam ne mu ngi si biir dëkk bi Banjul yi sa capital city foo romb yaa ngi faa gis garage yaa ngi gis ñee ngi jaay fii ñii ngi taxaw fële ñee ngi lii loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne fu ñu jaar ñu ñu setup ko area si local area si ñu am ay marché proper stalls ñiy jaay ndéewoo fu ñoo nekk ñiy jaay reer reer fu ñoo nekk taxe bi bu mu nekkaat ci revenu bi ñoo généré bu mu nekkaat loo xamante ne da ngaa waax bu yow Fatou Samba mi nekk revenu collecte bi dem collecte ko mun ngaa jël lu mel ni Moneywise yaa ngi dégg li moo am ci yeneen develop countries yi ni ngaa jëndee sa crédit wala di jënd kiw power noonu ngaa jënde sa land sa sa property eh, revenu bi sa property rate bi yaad rate bi mun nga ko fayee noonu at bu jot comme ni ngaa jënde crédit da nga fekk nga xam faa dem direct ci account yi du jaar ci loxo nit lool dina wàññi li nga xamante ne mooy corruption ak embezzlement yii are things yoo xamante ne it's important Gambia tey Banjul ci boppam war na moo am database ñun am na ñaan adresse système fii boo ne number one boo ne number one Sam Jaag ñu indi la fi ne number one Independence Drive ñu indi la fi boo ne number one eh, Gloucester ñu indi si kër gi understand tey jii war na ñu am a database ñaata nit a dëkk si kër yi xëy na ku nekk ñu registré la moto yi moto yi dugg ci biir dëkk bi ñu am congestion zones areas yi tey boo xoolee garage bi si suuf nga gis fi moto yi paak am na yoo xamante ne it's not proper dëkk bi dafa pollute yaa ngi woon a dem si komba géeg yooyu tey bu moto buy dugga soo buggee dugga ci yenn areas yi nga fay congestion charges comme ni ngaa fayee congestion zones in London mhm. loolu dina nekk revenu pour dëkk bi yaa ngi understand housing suñ amoon suñ housing ni boppa flats two three bedrooms comme new lines ni meloon ak yooyu noonu soo amee flats mu nekk ay council flats nga am sa register waa Banjul yi dikkoon Banjul te dem toxu ji Kombo di luyee ak ñooñu ñu add ñooñu onto the waiting register understand nga ñu jox leen ay ay kër luyee leen ko revenu boobu di dugga si council bi duñ toog di depend on uh, government uh, subvention wala di depend ci uh, yaan oona si ñuy ñuy fay wala naan ñuy fay nañ wala fay lii yëpp ay things la yoo xamante ne war nañoo seet ñoo diversifier suñu économie. sa sa plans yooyu wax dëgg neex rafet na waaye di nga gis Gambie ñit am plans yu rafet waaye suñ ko joxee position be moo toog rek xam nga oncle Jaw mu ngi am biir te mu toog sax jël jël suti rek toog di lekk suñu xaalis maa suñu jëyee place di nga di nga liggéey. faatu euh, man waxuma la waxi meeyoo sax ba lenn lu ëpp loolu sax su ma ko joxee ma liggéey. Fatou man ku ma xam liggéeykat laa maa ngi laa wax ne 17 years ku nekk manager manage tubaab yi tubaab yi ñoo gën a dëgër boppa yaa ngi naan lii waaye ñoo gën a dëgër boppa naxari te bul fàtte ne man judóowu ma fa yaroowu ma fa mm-hmm. fii laa judoo fii laa yaroo màggee fi jàngee su ma jàngal lu ëpp fii laa ko defee nga dem manage ay tubaab ñu nekk 43 niti tubaab ñoo xamante ne ay managers lañ middle managers nekk si sa ron ak yooyu xam nga nekkul loo xamante ne lu yomba la tam faatu ah, liggéey rek laa gëm liggéey laa xam loolu laay def te buñ ma dénkoon buñ ma dénkoon leneen sax lu ëpp ak ma doxal ko loolu moom du loolu moom. soo fi waxee luñ ma dénkee lu ëpp ak Kansour ñu dente ba président Adama Barrow génne la NPP loolu moom xam ko bu ko fi wax de naa laay génne NPP. waaw mooy bu toogee ba ne ma jaawoo kaay toog ma jël. <laughs> kon nag lii nee na ah gis neen ne ah, yaa ngi yaa ngi yëngu si wàllum aada ak cosaan te yaa ngi bokk NPP ah, ñu bëree bari ñu ngi wax ne Adama Barrow su bëggee succeed si li nga xam ne moo nekk political career mu génnee fa Amat ba parce que Amat ba mooy indi coow li yëpp si dëkk bi Amat ba du xam fu moo waxee Amat ba du xam nu moo waxee gaa yaa ko wax du man maa ko wax honorable you know ñun ñooy jotalikat yi ah, ah, nit yi loolu yëpp dégg nañ ko mbaa yow soo ñëwee parce que ñëpp xam ne ne danga nga diplomate ñëpp xam ne na yow da nga over professionnel da nga xam nooy acte ak yooyu mbaa gars yi la jër rek ñoo jox la li nga xam ne mooy wàllum tourisme ne nekkal ministre bi <laughs> ah. Fatou Fatou Fatou Fatou euh, suñ ma dénkoon rôle boobu tam euh, foog naa ne lu maa fit la lu maa mun a enu la waxuma ne loolu dama ci teg suma bët wala leneen euh, Fatou man foog naa ne. Euh, maa ngi la doon waxtaanal ne am quite versatile ndig euh, laal naa areas yu bari study naa social work def naa euh, diploma in acting and directing ma def masters in community work and youth youth and community work soo ko xoolee areas yi yëpp bokkee wuta yeneen areas yoo xam ne liggéey naa fa in terms of suma experience as magistrate from 2012 ba léegi so areas yëpp dama ko laal so xam nga yow yaa dee wax ne janna bu buggee mucc dafa bari pa mhm. ñu versatile nag euh, sarale euh, spread our tentacles in various areas ndax nit ki euh, loolu bokk na ci liy develop tey directeurs yi nga gis ak permanent secrétaires yi am na ñoo xam ne boo leen génnee seen place yóbbu leen feneen dañoo mel ni ndox moo génnee si jën ama jën boo génnee ci ndox rek waaye comme ñun yàlla dimbale nañu toj nañ different areas we able to adapt ourselves and adjust pour fit in various areas lu ñu ci jox rek ak lu ñu ci dënkat ñu am yaakaar ne mun nañ ko doxal dinañ ci def suñ kéem talaay kàttan. ahankañ kon nag defaraatal xam nga toogaay da nga ko dee mun a defaraat ma day may defaraat sama toogaay da man gis nga man kenn du jël sama place may toog ba mu baax defaraatal. ya gëna xam lu ma wax yéen a ñoo seetaan Semester Avenue rek fi ci biir Banjul ah ki nga xamne nak dafa jël Banjul dugal ko ci xolam mom lañ ñew sét si kon nak suma ñewé Banjul damaa ràcce parce que fi la State House bi nekk ah fi la fi la fi la yëpp wara daal fi moy Banjul sun capital bi wax dëgg ne yalla man dama like Banjul dama bëgg Banjul si sama xol yeen wa Banjul yeen si yeen ñëpp ñu ngi na naan nuyu di leen TV la subscribe leen si sun page bi ngeen xamne télé bi nga xamne lu kenn waxut ñun ñoo ko wax lu nit di bugg a wax te mënut koo wax te xam na ne su ko waxee ah du dem yoon ñun ñu ne la ñëwal ñu waxal la ko waaye nag duñ fi taxawal kenn you know what I'm saying semester ya de wax yooyu you know what I'm saying. waaye dégg nga ma nga dégg wax no, no, no, no. non non. maam nga man man ni magis. i am very ordinary. ah Fatou waaw su ma nekkee ci office bi i am a different person. Why? You waaye yóbbuñu si Angleterre Angleterre seen you? yi. yóbbuñu yóbbuñu tuuti what do you want to know. Ah, let's just go. no so exactly tell me what do you want. just tell me who you are. all right I'm I'm Ibrahim Thiaw I was born and brought up in Banjul uh, in the 70s and I went to school here, did my ah. primary education, my secondary education, my high school and went up to my A levels. Uh, after that, I did worked for various services. Did, did you study journalism? I did journalism, of course. I studied journalism. I did it. Uh, I worked for Sud FM. Ah, so gars yi lu ne wa déedéet naka la ko gars di ko naay naay naay naay noonu américain ñoo ne wax yooyu ah ok kon ñun english xam nga américain ñoom they speak the street english we speak the queen's english ah, the original one yeah so <laughs> ok so léegi tuuti rek boobu ah dañ leen doon ñamal tuuti xam nga sometimes it's good suñu waxee business tuuti rek ñu dem tuuti si foon du yaa dara ah, Ibrahima Jaw da nga demoon si tooyi Adama Barrow bi from all over the country da nga tooy ak moom non non non non man maa bi ma ñëwee Banjul two weeks laa fee am yaakaar naa ah, week bi mooy suma third week ma ak suma third week fu mu nekk nii ah, dew ma benn too wax dëgg ne yàlla ah, too bi sax fekkuma fi fon naa ne yi bi moo nekk boor yi bi moo ñëw di travel di dem ay Ibo Town ak yooyu fekk na ma Banjul waaye dew ma feeneen ndik invite nañ ma ci yeneen yeneen programme ku la invite man am naa MPs yu ma invite si seen areas yi amna ministers state ministers you invite ci programme bi ya nga understand ci pour dem atteindre yena a some of the programmes within the combos waaye dem ci ci ben. ki mu ngi lijanti yonam dede lijanti ah yo ya nga lijanti sa yoon fii holen kan You imagine man nekana gambia Gambie ben minister benn ministre. waaw ma si dee call? yéen ngi ni nak every day ma liggéey holen leen ne dama leen interview ngeen bañ way holen leen ko. boo interview rek wax ma ko dina la dig. Adama baro la bëgg interview Adama baro incha allah dina am. ah moom maa ah, mi ne media bi à ah, Bayas man am na Bayas tamit sa pare rek kañ jàkkaarloo wallaahi nga xam ne lépp dëgg la man yow laa bëgg a jàkkaar lijanti ko. non non dinañ ko lijanti bu soobee. ah kay gëm naa loolu man yow la ma war a ma gëm. Banjul itam koo ci a interview rek. Ah, bu soobee maam bu dee Ndiaye. mu ne ñoo fa sunu xaalis bi ñu laajte la si dara. dara mu ngi noonu ñoom Cheikh Omar Faye yëpp. ah kay waaw moom interview naa ko Cheikh Omar wax dëgg very accessible and open door policy sam naa dinañ mhm. kontaan pour ñëw Gambian Talents am waxtaan ak ñoom mhm. ah, ndig ñoom lañ dénk réew mi ñooy kilifa réew mi soo xam naa ne duñ bañ loolu te am show the president himself would definitely love to come to your platform wow. and then seize the opportunity to tell us the plans that he's got and the development plans that he's got. dama ne ragal nak Uncle Jaw. ragal di question yi nga laajte yow dañ dugg ci ay. waay si dëkk bi la bokk gis nga gis nga soo bëggee dëkk mu dem. yii dañ ko war a gis nga interview bu mel nii. Iya. am na ku toog ne lu tax Jawo NPP iya. interest ak ko dugal. tey wax nga ne interest dugalu la kon foog naa wax jeex na. gis nga luñ lay laajte nga merci. Mm. dafa fekk yaa ko def. man mii sama laajte woon ne dama am fukki jëkkër ak jurom ñaar mané la waaw man dama am fukki jur kër ak jurom ñaar ni sama ñaari pa yaa ngi sa kër ba yeneen yaa sa stream ci xam naa ko jaaw dina ma utal benen pa. légui ñu ñëw ci li nga xamné mo nek meeting Banjul bi ñu gis la ci meeting bi ok meeting bi of course dañ ma invite eh, banjulian la eh, gis nga Banjul gi suñ ko doon jaay dina wax ni ñu jox ñu ci ñun suñ wéccit ndik suñ mami dañ ci am cër yaa ngi understand suñ mami dañ téla a fi ñu ben ku nekk dégg na ñu bokk ci njabooti Maamu Nderi Diop bokk ci njabooti Mari Jibaan Diop njabooti Xaalima Jaxate Kala ah, kon ñun mun nañoo wax ne kenn ëppale wuñu biir Banjul gi yaa ngi understand bokk ci njabooti Nduuréen ah, ndax ah, maam Mbegaan Nduur mi nekk suñu maam nekkoon buurub Saalum moom it kon réew mi dañ ci am wàlla yaa ngi understand Banjul suñ ko doon jaay comme li ma wax rek dinañu jox dinañu jox suñu njëkk wala jox see dañu si suñu wàlla kenn oppale ñu biñ euh, bi waxee ne président bi dafaa ñëw euh, ñu yëg ne ñu ngi ci biir dëkk bi ñu invite ñu ne ñu ñëw ci programme yi Banjul bi ma ne leen bu ko yàlla dogalee euh, ñu ne ñu nag du mbiri politique wala dara waaye bugg nañ nga teew waaye kilifa kool ma ne ma bugg nañ nga teew ndax sa cër ci biir dëkk bi ak yooyu ma dem ànd ak suma nijaay dem teewee ji programme bi ñu cëral man nijaay euh, oncle waa alaaji Waaka Diop euh, suma mag yaay la ñu ànda dem ci programme bi ñu cëral ñu teg ñu fu baax wana la ñoo kilifa yeeg yooyu noonu ak yeneen ak yeneen mu am waxtaan yu ñu am ñu ni neen ah macha allah tabaarikàlla ba lii xew-xew noonu la rek Fatou ñu gis euh, si mitini Banjul bi ñu jox ku mel ni Baba Jah plateforme mhm. am ku ma wax ne Fatou ma ne naam mu ne ma mitini bi dañ ko jël jaay ko mhm. mane ne ko jaay mi ne ma waaw mi ne ma gis ku mel ni Ibrahima Diaw a toog mhm. ooyun oh, Banjul yéen si ñu wax mhm. lan mooy seeni problème ñu war ko jox ay ñoom baaba ja ay wax bu sew defa am mhm. noo gisee meeting Banjul euh, fooguloo ne dañ la waroon a jox plateforme nga wax to be honest su la waxee dëgga muy dëgga xam naa ne mbuub mi du ma bàyyi ma fen li waxtaan naa see mboom moom euh, lu jiitu meeting Banjul bi am na ko propose ne ma dañ bugga biñ ma invité ma ne leen damaa ñëw rek as an ordinary citizen Banjul yéen lan dik xalaatoon naa ne mun nañ laa wax ne nga wax ñu ne ma dañ bëggoon sax pour ñu jox la parole nga wax ñu jox la kaddu nga wax ma ne damaa ñëw rek asan ordinary passin pour ñëw seetaan maa bëggutoon pour bokk ci wax wala dara ndax dama demoon pour déglu dama demoon pour seet dama demoon pour assess loolu moo ma yóbbu woon ah, pour ne nag dañ ko jaay dina ma jaaxal ndax li tax gis naa ko mel ni Aji Louis wax na fa gis naa ko mel ni ah, Ibou Seka wax na fa Euh, ibu Ndaw ma gis ku mel ni euh, Mbaye Guèye ñooñu wax nañ fa ñoom Basiiru ñii ñëpp ay doomi Banjul lañ te ñu wax ci làmmiñi Banjul wax li nga xamante ne mooy tawati Banjul ku mel ni Baba Dia euh, ñëpp gis nañ ñu moo supporté président bi ak nu mu ko jàppalee tey rek kool ma si ngoon si nii bëggoon na moo ñëw sa teewee lii bëggoon na moo ñëw si jotaay bi pour teewee. daw rek la maa def. <laughs> waaw déedéet mu nga biir kaama <laughs> léegi bu ñëwee jógee Amérique jënd ticketam ñëw ak yooyu fekk déedéet bu waa jënd ticket yow yaa jënd ticket waaw moom dama jënd suma ticket waaw man mënumaa layal waaw euh, ñëw teewe programme bi dina rafet comme moom ak plateforme am ak followers am ak yu mel noonu te ñu bari nañ ko bëgg a tam te ku am xorom la macha allah mu ngi li mu li moo def mu ko mun euh, bu ñëwee yaakaar naa rafet na cër maye na ko tam pour biir Banjul la Banjul is the capital city Banjul pour ñëpp la réew la pour ñëpp euh, dina baax ñu jox ko ci moom kàddu waaye waa Banjul yi ñoo jiitu wax nañ seen tawat président dégg na ko tontu na leen kon keneen tam ku jógee ci biti nekk an outsider comme ni ko jógee ci diaspora bi nekk e Gambien buñ ko joxee plateforme tam man foog naa ne dara nekku ci suma xalaati boppa waaye ah comme li nga wax bari na waa Banjul yoo xamante ne tam mënoon nañ leen a jox cër comme niñ ma niñ ma cëralee bëggoon maa jox cër waaye man maa wax ne. ñëwuma pour wax waaye bés bu jaaw takkee rajo pour wax nañ xam ne keroog wax jot ah, yow soo waxee rek ah, war ngaa wax kon nag ah, loolu mooy li nga xam ne nag Ibrahima jaawo ko wax kii ni ko jot radio kii télé laa koy jot nekk édito yam di ko éditel nag yu garaaw yëpp la ñoom bi na si biir dëkk bi ah su ko defee Ibrahima Jawo yow fooguloon ne bi dañ ko politicize ah dégg nañ si wax yu bari yoo xam ne wàllum politique bi sax moo gën a ñëw waxuma ne Banjul amul problème waaye luñ si génnee si Banjul waroon nañ koo gën a génne Daba Dia dafa demoon foofu ku politique <coughs> te euh, li nga xam ne mooy national euh, tour bi président bi di def euh, di people store boobu noonu ñëpp xam ne ne ku mu xam nit yi rawatina béykat yi rawatina askan bi lu ñooy jànkuwanteel nit ñiti wax ko waaye loolu yëpp daanaka si yëfi ay gaaduwaale la yëfi ay support leen parti bi ak support leen parti bële ñu bari ñun si diaspora bi fi nga jógee ñu ngi jooy ne président Adama Barrow waroon na moo ñàkk def lu mel nii Fatou am na ñoo xam ne it euh, it's the meet meet the people store comme ni nga ko waxee wala meet euh, meet the farmer store euh, this is a national duty bu président bi am at bu jot constitution bi mandate na ko mu jóg dem nemmeeku ji réew mi comme ni ñu wax ñu ni ñoo toogee yoro ba mu yàgg ñëw nemmeeku si waat réew mi et similar thing nga dem seeti sa njaboot moom mooy president of all Gambians understand nga dem commencé ko Banjul commencé ba ca fu Banjul fu Gambie am ba boori koy na dem seeti nit ñi déglu nit ñi ñu jox ko seen problème wax ko ko te foog naa ne def na loolu <coughs> président bi nag ah président ni réew la waaye he is a political he tam dafa am parti boppam te dafa yaakaar naa ne daf doon siis opportunité bi pour kill two birds with one stone te man gisuma loo xamante ne aay na si su ma gis-gisi boppa laay wax Euh, dem na déglu na taw euh, béykat yi lu ñu wax ak lu lu lu ci luñ bugg ak yooyu mu jox leen moom ay promise am ak ay cadeau of course ñim àndal ak ñi nga xamante ni ñu ngi si parti mag yooyu dem nañ pour wane ne président baa ngee liggéey lii mu ngee def lii dëgg la responsabilité am la nag waaye nag am na lu bëree bëri loo xamante ne mu ngi koo def bugga nañ nag ngeen ñëw doole ko si président bi pour jàppale ko foog naa ne loolu nekkut loo xamante ne tam lu aay la si suma gis-gis si boppam ah, pour Banjul ne dañ ko politicize I don't think so ndig man ñi ma dégg ñu wax yëpp problème Banjul lañ fi wax ñoom Aji Louis Diop ah, naka la jigéen ji tuddaati am na benn jigéen ku fa jël kaddu am na ku fa wax ne ah, ne ñu comme Louis Diop dégg naa mu ne Banjul youth si amuñ liggéey ñu dimbale leen comme par exemple ay gaal ak yu mel noonu ne pour ñu def ay usine comme cold stores nga xam ne jigéen ñi yooyu dafa amoon gaa Banjul fii si gool nga amoon NPP ak yooyu noonu yëpp NPE yaakaar naa yu mel noonu ah, yooyu yëpp nekkoon na fi muy places yoo xamante ne waa Banjul ñoo fa daan dem di fa liggéey ah, nga amoon GPM bi for exemple Saaro yii yëpp ay things yoo xamante ne war nañoo jëm a seet pour indiwaat ko bu ko defee waa Banjul youth si nga xamante ne ñooy toog ci biti ak ñi nga xam ne amuñ liggéey ak yooyu faatu dinañ am ci loo xamante ne nañ ko jàppan nañ ci mën a jàppande te foog naa ne loolu lu ci ëppa bu fekkee ne téeméeri nit a wax ci rali Banjul bi mun ngaa wax ne 70 yi wala juróom-ñaar fukk yi ak lu teg yëpp liñ wax yëpp mooy li nga xamante ne moo soxal Banjul te ñeneen ñi fa wax mooy state minister si fa jël kaddu te li ñu doon def mooy def seen présentation ak yooyu lu jëmale réew mi kanam ak mbiri liggéeyi réew soo mbiri politique gi lu ci néew a néew a néew laa fa <coughs> ok waaw loolu am na solo euh, su ko defee rek ñu dugga tuuti si li nga xam ne moo nekk euh, président bi soo soo demee si too bi am na ñu bari ñoo dem di ko nuyu da nga demoon nuyu ko euh, man dama toog fi ma toog ñu ñu jël si ma yóbbu ma pour wanale ma ak ma ega mu ne ma mu ne leen diw sanga man xam naa ko mu ne leen xam naa jaaw mu ne xam na ma persévérance eh, persévérance foofu suñu fa am kër persévérance nduuréen su ma yaay fa la dëkkoon mu ne ma xam naa la ndax doo doomi xoroja ma ne ko moom la mu ne ma xam naa la bu baax a baax a baax ah. waaw of course su ma yaay ngi woon UDP comme ni ma la waxee ak yooyu noonu ak of course jaawo ngi nekkoon ci télé bi bariwu doo mun a wax ne ku nekk Gambie nga nekk over 25 years té xaw ma jaawo mm-hmm. ah guma ne bari na de. xanaa borom amutoon télé rek. <laughs> waaw waaw so loolu loolu it's it's natural yóbbu nañ ma ma nu nuyu ko nuyu wante moom saaf wante moom mu laaj ma eh, ma wax ko li ma ko wax and that was it yeah. bëggut appointment yow météo yow bëggu la appointment wala bro. Eh, bro xam naa ne muslim nga jaar te moom it muslim la jaar. waaw kenn mi na la nen nen tase laaxa Banjul a ah, boori boori. boori boori paagi maasa da appointment. Eh, mënuma wax waaw mënuma wax dee. waxal rek I don't want to comment on that. ah waaw waaye daal. Ah. lu jot rek yàlla def. wax naa leen ko fii ku fi uyuwut rek xamal ne mooy waaw xanaa dégg ak déebu ah, naka la waxuma la wax rek lu jot rek yàlla def lu war am la moo tax mu ne waxut la waaw waxut la déet mu ne su nekkoon déet def du déedéet ah <laughs> nag ah, loolu neex na euh, président Adama Barrow tey su la ooyoon mu laajte la ban position nga foog ne yow moom nga fit ku liggéey si biir Gambia loo koy wax euh, fatu ma naa ñun lu ñu dënk war nañ ko mëna doxal ci réew mi ci wali information ci wali tourism culture ci wali mbiri permanent secretary mbiri youth ci ya nga understand even community development uh, in terms of uh, local government in fact ambassador uh, ambassador yeah of course we've we've got we've got uh, external links yooyu yëpp ay mbir la even protocol ñun loo ñu jox rek war nañ ko mun a doxal faatu waaw uh, xëccuwuñ dara utuñ dara yéemale suñ boppa lu ñëw rek ñu xam lu war a ñëw la. su la président bi ooyee sooy dem yóbbuwaale ma ku parce que dama bëgg a bind story bi yow ak Adama Barrow seen jàkkaarloo bëgg naa ko. <laughs> Fatou loolu dina ne. dina ne maa na ñoo xam ne Fanta Jaase moom fa naa moo gën a kontaan mm-hmm. ah mi ne mi ne mi ne I welcome my brother ma gis ñeneen ñu ne non Jawo daf ñu disappoint nekkoon na fi ah, GDC you know all of a sudden mi ne naan NPP why NPP ah uh, because ñene ñu ne da nga intelligent amna ko ma wax mané jaawu dafa over intelligent so gisé mu dem NPP xamna né ne fu mu nekk ni UDP ak NPP ñoy ñoy ñooy ñooy langaamu manam ñoy diirante maga ah so yo nga ñew dem NPP su ko defee nga gis ne Banjul mayoress bi o naka mayor bi yo nga mën ko jël <laughs> ndeysaan nit ñi seen xalaat lañ wax rek euh, man ñëwuma pour benn political position comme li ma la ko waxee ñëwuma pour benn position yàlla xam na loolu ah, bu ñu neexoon ñu dem UDP te am nañ fa am nañ fa cër ndax suñ yaay liggéey na UDP loo xamante ne macha allah oncle Ousseynou Dabo kóolare la ci kër gi euh, jabaram euh, anti may na nduur mbokki suñ yaay la ñoo bokk benn kër bàyyi euh, yaa ngi understand am nañ foofu noonu cër su ma yaay lu nekk taxawal na ko UDP so nit mënut a wax ne Euh, interest moom a yóbbu NPP wala nangam ba pare euh, comme GDC dara ñaawu fi dara ñaawu fi man du ma def politique bu ñaaw du ma xas nit du ma alab nit man su ma xamoon lu bon si nit sax dama cee mànd Fatou man noonu la ma noonu lañ euh, bi maa taxaw pour mayoral I came as an independent person. Mm-hmm. dama ñëw as independent I declared myself bi ñu ñëwee dama leen wax ni on one condition mooy ma dem independent. ñu dem ba mu yàgga ñi ma àndal ñu ne fu mu nekk nii fi mu bi toll fu mu jaar ñu am politique political party buñ ñu dibee ko xam nga comme li ma nii ni sa genn wàll nga moom sa genn wàll ay say nit a ko moom so they lean towards GDC this was the reason ñu dem GDC waaye kenn mënut a wax ne dara ñaaw fii ma taxaw mayoral ma dem pour taxaw mayoral GDC ndeysaan jàpp si bu baax a baax a baax a baax maa use opportunité bi pour gërëm ñoom ñëpp ah, waaye politics daf day evolve Gambien bi moo understand politics ni moo doxee mm-hmm. yaa ngi understand daf day evolve tey jii mun ngaa subscribe to a party nga dem ba mu yàgg gis ne yow li nga seet mooy maanaam wàlli development ak di opportunities li fa war a nekk gisuloo de bu yàggee am nga sañ-sañi ne ah fii de ascribe woon naa tulli waaye xaaral ma dem ci leneen loo xamante ne fii naa ni ñii li ma xam ñu ko deliver loolu fii lañ ko fekk euh, comme ni mu wax dara ñaaw fii man du wax politique bu ñaaw kenn mu sot a taxaw ñu ne la jaawoo wax na ci political platform yi nangam du ma wax du ma wax ñaaw du ma su ma xamaloon nit lu ñaaw sax du ma ko ndax nit ki ku nekk war ngaa dencal nit ayibam ndax ku gën a ko la dencal sax waaw so man daal maa ngi nii ay I am an individual. I've got my my own political uh, political belief. uh, any party that I believe that I their views or their principles uh, matches with mine, I'm not saying subscribe to the political party. Ken momuma, ken ari ken nenuma, ken genduma, ken gendu sama bakkan bi boleh ci dum takal. Waaw. Su ma neexoon tey parti bu ma bëgg a bokk bokk maa seet nag su ma doy ma dem. Muy NPP. Waxaat ko. Ah 中の not so much people start bu baax a baax ànd ak Adama Barrow xam nga ne am na ñu bëri ñu ànd ñu ñu ànd ak Adama Barrow te xamul lan la NPP miin dem na ngeen research kii ñëw na de xam na yëpp ah su ko defee nag ah, Ibrahima Diawa gis nañ ne waxtaan bi nee na waaye ah, eh, li nga xam ne moo nekk NPP nit yi di wax da nga wàcce sa anda tay sa yaay nekkoon UDP um you know supporter bu rëy ba nekk fa li nga xam ya, mo moo nekk iya, yaay compine yaay compine nekkul ku tuuti mm-hmm. ah, nit yi di wax da nga wàcce sa anda maanaam Euh, yow daal sa yaay mu nekkal lii waaye daal demuloo nga tuppa sa yaay sa yaay gaañu na maa ngi la mere. déedéet euh, ma ne la dara ñaawut ci diggante bi oncle Seynou ndeysaan moom it mu nekk ko am kóolare man nit euh, bu defee lu baax wax ko weeri koor bu jot si kër gii man nekkuma fi waaye dina fi wàccee sukkur dina fi wàccee ba mu ko daan defee la ko defee dina fi mu nekk loo xamante lu rafet la xale yaa ngi nii suma rakk yaa ngi nii ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy jël mbir séddaale ko jox ko nit ñi ñaanal ko naa yëkkati téléphone call ko kon dara ñaaw oh. ci ci diggante man ku def lu baax dama koo wax man nag ibrahima jaaw laa xoroja nduur xoroja la yal ko yàlla yi te jéggal ko waaye man ibrahima jaaw laa ni mu fi juddoo am fi raay mun naa fi juddoo am fi su la wax la political agenda wax la lu moo def maa doo dem kan si udp man am na fu ma far ba pare li nga man nag bu ma xasee soosu ba soosu rek nuur naa jeex naa noonu laa mel waaw man noonu laa mel xam nga am na yenn am na yenn yoo xamante ne ca ba la ñoo toog ca poto poto. Mm. man dar naa. dar naa dar ah, kay kon nag Adama Barrow xaw ma si biir dëkk bi waa waaye fu mu nii ñu bari ñu ngi laa support ah, diw baax na ndax moo ko wax dégg neen nag Gambia ñu bëree bari biti baa laay tudda biti baay wax na da nga baax nda baaxoo. waaye sa mbokk yi duñ ko wax kon nag Gambia may leen ma seeni noppa ñu xool ndax Ibrahima Jawo baaxi mbeeda la def baax baaxi biir kër su ko defee rek ñu toog ak keneen laajte ko kan mooy Jawo na def. jaamare alhamdulilah. tur bi. Moodu Jawo. Euh, Moodu ki nga xam ne mooy Ibrahima Jawo. ñoo bokk benn yaay ak benn papa man maa toppa si moom. Mhm. muy muy taaw man moo toppa si gannaawam. muy taaw bu mu taaw ah li Youssou Ndour wax si taaw. ne taaw bu jigéen baax na rawatina bu góor bi moom de ah, li ñu wax si taaw loolu loolu la doon bi ko taxaw na pa taxaw yu bàyyi taxaw na tax yu ndey waaw moom nag ni ku yàlla may la amul xadar eh, ndaw yaayam yëpp mooma mag nag fuuf ma toppa si gannaawam mu nekk mag boo xam ne ku mun a boot ay rakam leen eh, baaxaayam moom ni ko nit di waxee foog naa ñun suñ boppa ñoo ko gën a xam ndi dañ ne balaa ñu diw dafa baax su dee biir néeg baa ko wax kon sant yàlla la daan biti bi wax ko waaye nim mel si biir néeg bi noonu la mel si biti léegi dañ juddu suñ bàyyi gaaw a génn àddina moom nag yàlla tënk ko ndaw yaayam xaaf daay la juddoo fa la yoroo fa waaye nekkul kuy tux neewul kuy karta nekkul kuy naan neewul kuy daf yi fi dëgër boppam loolu mboolem loo ko xamee rek si jàng nga ko xamee te soo gisee lim xam xam bi mu am xam nii ah dafa tënku woon ndaw yaayam daf ko jël yëpp aj ko si jànga bañ na ko footballukaay bi barul fa tànka géej bi barul fa tanka feneen ak feneen barul fa tànka moom daal bugg bi rek moo woon xaritam ron yaayam ak ron maamam xëy na ñun ñoo daan génn si di dem di wóoree ak fooyee noonu waaye moom yëpp si jànga ko def moo tax school yi mu jaar yëpp head la fa nekk wala député head boy waaw macha allah loolu neex naa dégg ñu gis ne ku mun a sansa la euh, sansa daal dafa mel ne ñu ne mbiram la xaw ma ndax depuis bu mu nekkee xale la yàggaa bugg a sansa ndax dafa juddu rek ànd ak jamono bi dem ak wàllum sans loolu toomaayam si toomaayam la ko jëlee ki jur suma yaay moom lañ ko tuddee moom Bambi Ndour moom ñëpp xamoon nañ ko mag la nag ñu ngi judd 1910 waaye ñëpp xam nañ ko si su solo sax da ngaa foog ne moom moo taxaw toomaayam Ndour si sansa wax dëgg ne yàlla moom moom sansa moom man dama ne moo Djiby Dramé Gambia léegi léegi ma toog gis yu mu xam yu mu sol si Facebook bi ma ko tee nga si xeetali ma ne door di sañse waaw wax dëgg waaw so sañse moom moo moom affaire am la moom piis fu mu am nga dafa bëgg a waaw nit ku bëgg a boppam la sañse jànga set am yar am teegin ni ko gis ne ñun bu ñu nekkee ndaw dañ moon dayra bu ñoo wax dayra kadet mooy dayra xaleel ni mel nii si tubaab noonu la mel tamit si diine gi a daan waare waare kat la history yonte yàlla Mohamed gis nga su la téelee Alaaji Malik nga xam ne moom nga fa ne moom la xam su la téye Serigne Touba nga fa moom rek la xam dem na ba xam ne Serigne Touba ak ñun suñu maam maam maamam ñoo bokka te loolu yëpp moom daf ko xam su la jëlee history maama maama maama jaxu ba am na benn gamo xafdaay bu ñu ko mosoon invite mu wax si history ba jaxu ba ba imaam moo leen ba ñëpp a doon yëngu te time boobu mu ngi nekk lu ndaw xam naa la su doon am at la du passé 19 years si xelali Banjul ku mun a def ay gëstu. jox ma gi cër soo ko gisee ñi mu àndal ñu fa ko mag ñi ay nijaayam lañ ñi ay popam lañ waaye yar bi nekk si moom moo tax ñooñu lu ñu doon xalal su setee loxo rek mun a bokk ay mag ndab moo tax ñooñu élevé ko mu ànd ak ñoom. soo ñëwee tamit si wàllum aada gi théâtre nii kenn dama bàyyi ko léeg-léeg moo dox suñu daje ma ne ma ne yaa dee théâtre ko leen du mag de du man de su ma mag la waaw <laughs> moo dee théâtre man moom théâtre bu du ma si dara mu dee mag moom nag ah jàng na comme lu ma la doon wax sànq rek jànga mom kenn du ko euh eh, luma la waré né jaar na si school yu bari school yu jaar muy Malfa ak Malfa ak Winli buñ ko ci nee tudda Saadawda wa ñom ñoo ñu fa jitu head boy la Crab Island the same thing Muslim the same thing be fim fim, fim aga su head boy rek dana nekk head boy mom li la ko yalla may au prefect. Wow. waaw té li mom, la wax rek mom dama dégg mu né Serigne Modou Euh, sëriñ Modou mu ne xam ah, taaw sëriñ taaw moom it loolu la ko yàlla may moom taaw la si biir néeg bi su ma diggante ak papa su ma yaay taaw la su ma papa taaw la maam moom bu jigéen taaw la maamam bu góor taaw la moom si taaw la feeñee ba si yónente bi waaw macha loolu neex naa dégg ah, ñuy gis nag ah, banjul banjul paa yu bari den strigoon paa yu bari den naxari dareet Ibrahima jaawoo suñ ñëwee si wàllu moom ak ay doomam naka la mel papa buy yuxu la papa bu am xadar la ndax papa bu neex dareet man léegi-léegi dama demoon man ma day téye di di coow ñooñu seen ko wax yoy way mom dedet mom amul xadar kum la wax amul xadar mom dañ dee dem foo sa dafa ragal domam yi di buga bi mu leen buga wa buga bi mu leen buga da nga foo dafa ragal domam musuma ko gis mu dóor xale wax dëgg mosuma ko gis mu dóor gis na man suma rakam bi topasi man man dama lay fone dafa ragal waaye dafa jàppa jaaw comme mam lim ñemee wax jaaw man ñemee mako wax wa mom gaal neeg bi xale liñ ko minamin ba ñu ñëw ñoom Mouhamed mustafa liñ ko minamin da nga fone sa du seen papa seen la Mm-hmm. waaw ku lewet la ku lewet la ñu fi xale moom moom dóor xale moom bokkul si dóor xale mel si soxna yi nag loolu laa woon mënul afo du dóor jigéen <laughs> du dóor xale <laughs> moom du dóor léeg da nga fo ne dafa ragal jabaram sa moom ooyee bébé ndax du ma <laughs> loolu la ah, de ah? wax yéen ah. moom mama la ma la de moom nag des fois de sax jabar bi mooy jëkkër bi sa ko gos ñëwee ko gën a tànga moom moom dafa lewet comme noonu laa rek moom dafa lewet waaw moom dafa lewet Euh, ah. na diw baax na na mbokk yàqoo wa nen dem seeti keneen. waaw eh, comme li ma la doon wax rek nga ne baaxaayam. dafa toolu bitim réew ay fanweeri at. soo gisee ñun waruñ si dépasse si courant ak néeg lu nekk fi yëpp muy télévision lu nekk si biir néeg bi yëpp xanaa tapé bu ñu jëndee si marché bi waaye mboolem lu nekk si biir néeg bi moo ko fi indi. and then leneen neex na ma si moom bàyyiwuñu gannaaw mukk ndig maa suma rakk bi yëpp. dégguñ benn cure waaye ku nekk daf laa indi sa dundu weer every month ay ñaata at te li ma diwlin meew euh, Ovaltine mooy xalifa famille bi moo ñu fi teg because tey si maam bi si sët yi moom mooy taaw soo fa moom tey mooy mooy xalifa bi soo demee tamit suñ site maam Lajoor mi nga xam ne moo eh, meññe suñ maam mari jibaan foofu tamit moom it demel la fa waaw mooy ne prince prince la suñ ne demel mooy prince waaw prince si olof mooy mooy damel foofu tamit bu bu yàggul rek gaañ ko doon crown foo naa loolu daaw la sax mm. ñu ngi crown ak seen damel waaw Euh, macha allah kon nag mbokk yi nun lañ ko waxee rek euh, Semester Avenue hangout bi euh, du li nga xam ne mooy nit ki muy fësal boppam waaye ñun ñoo lay fësal lu tax ñu lay fësal am na ñu bari ñu nekk Europe tey xool leen ma ma xool leen ñu bari bari fàtte neen fi nga xam ne foofu leen jógee su ñëwee Gambia sa kër bi du leen gis dégg naka la ko famille am waxee day def si kër bi def si maalo yi def si néeg bi def si lu ne yéen na ko yàlla jàppale kon nag ñu def nii rek xool lan la moo defati si yeneen kër. let us inspire you feel inspired. ak Seydou naka nga def ba defuloo dara laaj mbay salaamaaleykum ba defuleen dara. ñu ñëw fekk ki nga xam ne ndaanaan la biir Banjul su ma ne ndaanaan yéen a ma ko gën a xam Gambie nañuy célébrer tey Alhaji Mbaye Gueye lañ ñëw seet si ñu bàyyi la rek nga introduce sa bopp waa askan bi yaay kan. waaw salaamaaleykum. man la alaaji Mbay Géey man Mbay Géey di doomi ndey Ibrahima Diawo muy suma lépp waaw suma lépp la faat Samba euh, ma kim doon ci man mooy wolof daf ne bu yàppa yëpp meloon ni res paaka du fa am yoon mm. loolu la mel ci man Ki, suya yàppa yëpp ni res kon paaka du fa am yon Ibrahima Jawo gorla gorla te julit la te ku yeb ah ku yëg dom adama la ku buga kubuga Gambia la ku buga Gambia la ku buga Banjul la ku buga Banjul la Ibrahima suma ma naree wax li mel ci man sax kon foog naa ne ah li olof di wax ne kon duñ fi jóge Ibrahima jullit la Ibrahima yëg na do Ibrahima yàgga naa koo xam yàgga naa koo xam ñu bokk a yeete teg ci ah saay ma julli ra parce que daf ma yëg yëg suma famille Ibrahima daal li olof di wax suñ amoon lu raw yaa baax dañ ko koy jox. Euh, suñ amoon yaa baax ñu jox ko ko ba lu ko raw. Euh, ñu gis ne nit dina tukki mu génn Gambia dem bitim réew. Mhm. sometimes da ngay oo borom ne la sorry I I don't know you. Mhm. Uh, did yooyu yëpp mhm. dégg nañ ko su ñëwee sa bunti kër ko te da naa def lu bari. fil tey jaawoo mu jógee ba Angleterre. ñëw seet si la. kii bokku ci pour li nga expliqué noonu. kii bokku ci. kii buy ne ceeb buy ne ceeb Banjul mun naa ne suma kër laa njëkk a ñëw sax Ibrahima melu noonu nga kool mu naan la <laughs> mu naan la dama biisi wala déedéet Ibrahima yaakamti naa ne ceeb sax ñëpp gis ko xam nga loolu mooy bugga a doomu aadama yàlla na ku yëg ci nit ñi ko gisee neneen wallahi iñ falilu mba school yi nam liggéey sax si banque bi jógee fi dem tukki jàmbaar nag dawul dafa uti doole ñu mhm. jógee fi dem Angleterre ma ñu seet si suma nit mhm. te fàttewul démba mhm. Ibrahima Diawa fàttewul démba donoy démba Diawa ak Xora Jandour yow zéro fot yow suñoo wax si yow dañoo wax tuuti rek bàyyi li des waaye duñu mën a wax yëpp ndax soo yëgee nit rek mooy lépp Ibrahima Diawa dafa kiyaariñ sooy waxa moom soo ko tesee dafa gaaw moo tax nag ñu gaaw dafa gaaw ci ñun ñu gaaw ci moom ku yëg doom aadama ku yëg kii loo bugg a wax si moom yal na ko yàlla fal cat yal na ko yàlla cat yàlla bàyyi ko fi lépp lu mébét si xolam bi moo ko xam yal na ko ko yàlla defal jaay na bi Moustapha parce que ku baax la ku yëg nit la ah xam naa ne ku sesu si moom rek di nga xam kan mooy kii Ibrahima jaaw ah suñ historienne bu baax bii jàngis macha allah fa tubaar fa kaala kii yaaxul school fees dox nanka wax nanka bu xippi sax wala ci bët ma ne ko yow dinañ mën a dem parce que kersa moom muy moom la yàlla bugga ci doomu aadama te fees na ko del danga ko ñaanal ni bugga si xolam bi moo ko xam yéen na ko yàlla defal si suma xol bi laa ko tibee billaahi wallaahi talaahi ndax kii dafa baax mm-hmm. baax nag dafa passé woon yaa baax waaye bu ko passé woon dañ ko jëli di ñëw jëli loolu ñëw tegal ko ko ah, parce que yaa baax sa dañ ko dee xeeb mm-hmm. ndig lu mu ñu dee defal yéeg ñu su ñëw dina ñëw si kër gi seetu sax ku ko joxe ku ko joxut mm-hmm. ndax nit ñi léegi suñu la joxee suñoo dem fa ngay daw di waaye moom dafa xaar ba last minute sax mu ne la maa ngi dem nii xam kooku séntuwul sax pour nga jox ko leneen mm-hmm. man nag lu ma wax si moom xam naa nit ñi nañ ne kii dafa war a wax wallahi azim mu jàpp nag si suma combat lool man bi ma nekk xaleel boobu moom jaaw maa ko féetoo mag ah ñu nekk a yeete muy am advertisement di ma ci boole xeebut ma ci dara nag di ma dimbalee di ma jàppale ba tey loxoom jógut ci man. Mm-hmm. barki démb Njaay rek lañ ma defal fundraising mu taxaw ci taxaw yi dëgg ba tey. jabaram ekkati or jox ma ko. man dama kontaan kii lu ma bëgg wax si moom foog ma am lu ma bàyyi. Mm-hmm. dafa baax jaawa daal baax gi ñëw waxu ma ngis tal mm-hmm. baax si boppam la baax parce que dafa baax ci biir baax ci biti. kon yéen na ko yàlla lafal cat. yàlla bàyyi ko fi ba si kanam kanam jaawa daal lu mu dunda rek ñun xeep nañ ko. parce que ku am njëriñ la ci askan wi. asalaamaaleykum. Euh, balaa ngay wax salaam parce que xam nañ ne euh, dox bu bari. Ah, euh, ma gis ne jaaw dafa bëgg a sant dafa dee. torop torop torop torop macha wallaahi wallaahi. Ah, man tey ma gis ko mu sol sa kii <laughs> ah. te su xoolal du koy soxla nag sax. bu ko soxla doo ko gisaat si moom. jox na ko keneen moom. moom daal géer la waaye man jaawa daal man jaaxal na ma. <laughs> macha allah torop torop dafa yàgg a nekk ci moom daf ko judduwaale. Mm-hmm. boo ko gisee sax di nga xam ne kii yàgg na ci. daf ko judduwaale parce que moom sanse ko. lum mu sol rek nga kontaan. naka jamono xale yu jigéen ñi eh? <laughs> no no no no no non non si yooyu na di lay bokkutoon si yooyu. non non non bokkutoon si yooyu nag wax dëgg yàlla. waaw waaye nga am na nooy mun a sansé. waaw waaw gars yi topp ko waaye moom topput gars yi. gars yi topput gars yi application ah jaral ko broder bi ak dafa simple non dafa simple dafa simple. jaw bokk si ngeen <laughs> ah Diaw mm-hmm. tey nag nga ñëw si kër bii nga xam ne ah, fekkee suñu baay ji mm-hmm. ah, ñëpp ay kontaan ah, euh, lan ak euh, waa Ngomen naay wax ba tey mm-hmm. euh, ñi nga xam ne ñoo nekk si kër ji waaw maa ngi sant yàlla bu baax nga ànda bu yàgg rek dëgg boo gis rek mu continuer am na ko kiyee te ñoom ñoo tiye ndax euh, Gambie sori na. Mhm. dañ laa call di la text buñ déggee dara Angleterre sax nañ la text seen ndax yéen ok. Mhm. loolu dafa sori ci mhm. <laughs> <laughs> <laughs> ma. mënu ma cee wax. ndeysaan. jërëjëf. Ibrahima Jaawo Banna. Ibrahima xol ma tey ibrahima am na diina man jaawo tey ma woy la ibrahima jaawo ban naa lay woy mm. ajaratu xoreja nduuray sa yaay demba jaawo mooy sa baay doomi ndey mbay jeey ak fayangom yaay doomi ndey mootu jaawo mm. yaay séeri la ma jàllo mm, yaay baayu baakari oh. yaay baayu mari di baan juddu bu rëy ndey ak baay waaye fulla ak fayda borom la ibrahima am nga fulla am nga fayda am nga diina yëg nga doomi aadama yal na yàlla ñoddi sa fan wi oh. yal na la fi yàlla bàyyi ba ca kanama kanama kanam téeméeri at ibrahima tey nay ñaanal Yoff Love Talent ah, moo tax nga ànd ak Talent ndeysaan ah jàmbaar nga jaaw na jàmbaar nga

yéen nga xam ne yéen a ñuy seetaan rawatina nag yéen ñi nga xam ne ah, yéen a nekk si diaspora bi ñu leen naan nuyu saa su ne mm-hmm. ah di leen ne Semester Avenue daf fi ñëw nekkut ku wane mm-hmm. euh, li nga xam ne moom la ñu ki di def rek ba daf leen mm-hmm. inspire am na ñu bari ñu génn dëkk bii dem fàtte Gambie rawatina Banjul bi nga xam ne bàyyi foofu la juddoo métte ndey foofu la juddoo mhm. su fa bàyyi juddoo wut ndey juddoo wut fi ñëw nga jàngee fii mhm. buñ fàtte Banjul mhm. fii la fii la mi ne this is where the story begin ban mooy dëgga fii ku fi toog nga ne faalewuma kenn di nga toog bëgg a faale nit te xam ne nit yaa moom seen bopp bul jooy nii la nit ki loolu liggéey rek loolu liggéey rek fayeku waaw loolu liggéey rek fayeku wallaahi loolu liggéey rek fayeku bul jooy bul jooy yaa ko liggéey yaa ko liggéey mhm. ku liggéey nag suñ borom mhm. fay la mhm. yaa xam lu baax nga liggéey wala lu bon waaye yow lu baax nga mus di liggéey barki Sëriñ Fallilu la yal na la ah dafa mel ni yow kër ñoom ah, Ibrahima Diaw kii yaa fa daaxa di ah xool leen kii ah système bu rafet <laughs> fii yaa fi daaxa Diawakunda yaa fi daaxa. ah mu ah, yaa am sa kër ko ba suuf. ah lii nice na naka nga def. maa ngi fay. noo naka. Cissé. Soxna Cissé. waaw Soxna naka jaay déedéet si la man ñoo bokk yaay. ah yéen a yaay. waaw macha allah. Hmm. sax Ibrahim Ibrahima ñu mën a berina. ah mhm. suma suma wa affaire am sax foog naa duñ fi gaaw a jógee. Mhm. yaay la papa la na ya, su suñu yaay fu mu ñu taxaw woon mu ko taxaw fu mu nekk nii na ko fu allah bëggul ñu naxari. bëggul lu ñu métti surtout man guddi su ma ko ayee sax gis ko suma soxla balaa set suma aajo faju ñëwu ma nag suma benn morom mm. ñëwu ma suma benn jàppale na ma boor bu nekk bugga na ma bëggul lu ma métti bëggul lu ma naxari parce suma doomi moo leen ame mooy fay suma néeg may def everything bu weer deyee moo maa jox suma allowance maa loon lépp bañ na ko ba lim maa jëndal lima ma suma domi sax du jógee Gambia yeb la order dama tok moto ñu garé bagage yeb ñu wàcceel mako kon suma ma nee na wax ci Ibrahima ah. duma fi gawa a luma wara ma wax yeb ci mom mhm. waaw taxaw nañu place yi mak place yi yaay place yi papa suku man mi nga mel ma ñaka yaay ñaka papa gannaaw yalla man dama ko ko wax man ko yaay suma yaay yaay suma papa yo la am mhm. man dama ko ko dee wax man moom laa am. soxna ñu gis ñit euh, yu bari dañ dee euh, sàmba alaar euh, soo waxee rek ñiti si biti ñoo lay gërëm waaye du sa waa kër yow Ibrahima Jawo sàmba alaar la déedéet man loolu gisuma ko ko loolu sax mhm. ñun su su suma maam moo ko yar mhm. te kooku ku ko xam ku xam mari jibaan xam nga ko si tabe xam nga ko si baax uuf na njaboot kon koku du amé ko xamné dafa nek nekk sàmba ba nit ñi di wax ci biti sey mbokk duñ ko wax dedet ma de man fuma tok damu dama ko dé wax man fuma tok mom dama ko dé wax né man gisuma kenn mom suma amone ñaaram wala ñettam rek man fum né ni takana man dama ko dé wax di joyuma yaay joyuma papa ku bëgg a bugul nakle kanono ah bugul le kanono ah yo ah. ah. ah, eh, si se ngasa na de na yo suma kal ah ulai bugul le ka bugul le ah bugul le ka de suñu wi hulide naka la hulide yam de mel mom nekul nit ko xamne am fitna waxam bari wut dara am bari wut bañ nako respect su lekke sax buy joglum la ñika wax moy jere jëf du botam ya tax may wax mom la bu lekkee ba pare bu jógee lu mu laa njëkk a wax mooy jërëjëf. <laughs> waaw te loolu respect rek ak cër moo ko waral amul ne mag nga wala xale nga loo ko may su paree na la jërëjëf. macha allah waaw loolu moom lu ma gis si moom la. <laughs> te dama ko dee wax gannaawam. <laughs> waaw. Ah, ñu gis ne. Eh, yow yaa nekk gaay seen sister te yow rek la gaay am si jigéen su ma juumut jigéen su nekkee magam bu góor mag bi day fiir mag bi day bari affaire ah, jaaw nekkut broda bu xaas maanaam su la gisee rek ma xaja ah, dugal ah déedéet bi ngeen doon grow up waaw meloon moom yëngatuwut comme noonu tàngut mhm. ko dee tooñ moom nekku ni koo xam ne dafa am xadar déedéet. Mm-hmm. waaw loolu moom moom melul noonu moom moom melul noonu. macha allah moom amul xadar. soo ko doon ñaanal loo ko ñaanal. gudda fan. ñay ko ñaanal sa ñaanal ko doo ko ñaanal rëy kon su ma koo ñaanal gudda fan laa koo ak wér ak yokkute bañ yëg ko ndig man bu guddee fan rek man dinaa gudda fan. Mm-hmm. laa koo ñaanal yàlla jubale koo jabaram yalla may ko fan gu gudda bu anda wér yàlla bi si dala dara gannaawam hmm. mu tok ba fekke njëriñu njabot ji allah ko ñana hmm. lim amon daw yan nako yalla yàlla may lu ëpp ren giñ nekkal nii bi Mustafa hmm. yàlla may mun na ko ko yalla defal borom xol bu set la te amna naa na fu mu dina fa am lu baax ndi dafa am ñaani waju dafa am ñaani waajur <coughs> dafa bugg a yaay ay yàlla def rek yàlla soxla rek waaye yéeneem si yaayam man xamoon naa ko man mii man xam naa ko yéeneem si yaayam rek bu guddoon fan fu mu ne nii ñu ngi wax leneen waaye yàlla yàlla baax na ne nii la ko yàlla namee woon. Mhm. moom it di ko ñaanal rek fan te yan na yan na gën si moom. amiin yaa rabbi loolu neex naa dégg sunna diw baax nan la mbokk yaa ko wax ah, fii ku fay ut utal ñaan lu baax ah, su la mbeeda bi gërëmee te sa biir kër gërëmun la ah, war ngaa xoolaat sa bopp kon nag waa kër bi gërëm nañ ko dañoo génn xool mbeeda bi lan leen wax si Ibrahima Jawo nen dem mm, ndax mbokk yaa wax na def noo tudda maa ngi fi Aïcha ki nga xam ne mooy Ibrahima Jawo moom suma magi jëkkër la. Mm-hmm. Ibrahima Diaw ban façon jëkkër la si yow. ii boobu ma ko waree wa fi naaw tey ba suba te jee ku baax la xam nga lu ñuy olof ne njëkk a judd njëkk a baax moom daal loolu la jëkkër bu baax la man daal baax na daal loolu <laughs> mun na bu baax la parce que dafa taxaw yi mag taxaw taxaw yi papa si famille bi taxaw taxaw yi yaay jooyuñ dara wax dëgg neex yàlla ma dugg see si famille ba tey wax dëgg neex yàlla jooyuñ dara. dafa responsible memang mudah sëkka mm-hmm. yan pasang responsible yep, yëpp tomatoo dal, everything dal, join dara dal. Pun ñu dal, mam moom suba moom daf see daw wax dëgg neex yàlla mm-hmm. eh, soo ko doon ñaanal loo koy kini kii nyana, koo ñaanal mm, fan bu gudda bu ànd ak wér yàlla bàyyi ko fi te si kanama kanama ba ku baax ku bah dal, ku dal dal, darah. daal jooyuñ dara wax dëgg neex luñ soxla daal suba ba ngoon mu koo daw ba mu euh, ñu gis ne dafa ñëw holiday yow nga nekk na si biir kër bi euh, dégg nañ ne ku mun lekka la maanaam lekka daal ah du koy xoolee kenn si bët ba ayo cooñ fa moom wax dëgg ah lekka moom wax ñëpp ne maa lekka kenn wax dëgg su ñëwee <laughs> <laughs> la santane du ma ko wax kenn ngay xoolal ah hmm. so ban façon lekka la gën a bëgg lan la leen ne wax ngeen toogal ko du fen moom daal loo moom daal amul ndeysaan loo ko tooga mm-hmm. waaw loo ko tooga rek mu apprécier moom sonalul kenn ci toog bëgg ma lii laa bëgg lii laa rek mu jël ñu ne mu ñëw mu tombé ngénte si biir kër bi am ëllëg di ngénte bi euh, yaa wasin waaw maa wasin dafa ni bébé bi daal <laughs> doon xaar papaam keñ kon semestre bi mut na ah keñ mut na <laughs> ñu gis Banjo banjul neka sa banjul mm-hmm. neka banjul li ñu bari mm-hmm. yow nga judo banjul mm-hmm. yobu ñu tru banjul demba Fatou euh nga ma lu ma neex man comme limu ma wax amee proud banjulien banjul dafa sax ci suma xol ndi ñun biñu nekk man dëkkuma won fi man afday la man suma yaay bala moo siis man afday la judo fala yero euh ma nekk ci loxo suma maman man fa sa maam nu mu tudda ah, suma maam Mari Jibaan Jaxate xam nga suma rakaang laa wax léegi nii ne ñun ci famille Lat Joor lañ bokk bokk ci famille Xaalima Jaxate Kala mhm. ah, Mari Jibaan Jóob mi jur suma maam Omar Jax suma maam bu jigéen maamam moom lañ ko tuddee ñu ko wax Mari Jibaan Jóob mhm. Mari Jibaan Jóob moomu moo Lat Joor ñoo bokkee benn kër guñ jógee Saaxewar Fatma Jóob moom moo jur baay Ah, kon ñu doon ay damel bokk foofu ki ah, xaalima jaxate kala mi nga xamante ne moo daan àtte xaalima jaxate kala moo jur baara jaxate baara jaxate jur omar jaxate omar jaxate jur mari jibaan jaxate mari jibaan jaxate jur jur xoroja nduur mi ma jur mhm. kon ah, ci foo wàll googu noonu ma juroo Abda nag yaroo fa jànge Banjul magee fi fii laa jànge from nursery school mhm. ba suma six form ma def ko fi lu jiitu maay dem Europe liggéey fii Banjul démba nag suñ ko wax. Mhm. ñun bi ñoo nekk xaleel euh, suma maam daf ñu daan teg ñu ñu léebal Fat Samba. Mhm. dañ daan léeb. Mhm. gis nga bu guddi jotaan temps boobu télévision si bari wut. yaa ngi dégg gadget si amuñ ko woon dañ daan toog nii ci ëtti kër gi buñ toogee ci ëtti kër gi ñu ñëpp ñu wër euh, mairie. bu timis buñ julliwaan timis ba pare lu jiitu ñuy reer wala ñu reer ba pare ñu toog di ñu léebal dinañ la wax bu keeg njomboor wax la xale wax la kumba bu am ndey kumba bu amul ndey li yëpp doon ay jàngat yoo xam ne dañu ko daan indil. soo ñun euh, moo tamaay de wax ne balaa tubaab yi dañu indil formal education ñun amoon nañ awa own form of education. muy ne moo daan am ci biir kër yi. Mm-hmm. danga daan juddu ci kër. xam kan mooy sa nijaay xam kuy sa doomi nijaay xam kuy sa doomi bàjjen xam kuy sa tanta ku nekk naka nga bokkee ak moom man nag loolu dafa des si man. Mm-hmm. ba pare ñun suñ kër yëpp Banjul soo ko xoolee kër yëpp ports lañ ñun kër yi ngaa gis yëpp ports lañ. danga daan génn ci kër gi dugg ci kër gi léegi jaar te doo jaar ci bunti kër gi doo jaar ci mbedd mi ñu daan am lu ñoo ooyee rooti guddi su guddi jotaan yow tey jii faat Samba dangaa toog mu óor ma ne ëllëg man awma lu ma taal ma jaaree ci porte bi hmm. yow konkongal sa palanteen la faatu man day boo ma dimbaliwul ëllëg suma jabar doo am lu mu taal wala nangam ak nangam hmm. wala suma jabar ñëw ci yow am soxla wala am xew nga ekkati yére jox ko ak yooyu hmm. looloo fi amoon démb ak barka démba ñun nag ci culture boobu lañ juddoo loolu lañ fekka bu buñ tegaan añ ñëppaay toog ñu jëw seen loxo de kër néeg bu nekk da ngaa yekk a teg ci bi ci digg état bi loolu moo fi amoon Banjul démba nekkoon loo xamante ni lu rafet la macha allah mag yëpp nekkoon fi nag. Mhm. Ah, Banjul dama dee wax waxtu wu nekk ne dara bi Baay Faal la fu suñu morso bu nekkaa fi nekk ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk a mu nekk loo xamante ni lu rafet la fi woon ah, ñaan yàlla yàlla na continuer te gi sax. Euh, yéen continuer te Banjul ji sax euh, incha allah yàlla dina ko def parce que ñu mel ni yéen yéen a ngi euh, guide ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi kon nag Jawo ñu dugal si tuuti si Ibrahima Jawo bu mu nekkoon ndongo Banjul parce que dégg neen ne yaa ngi juddoo fi nga xam ne mooy Afdaay Afdaay nag suñ koy wax ñu bëree bëri ñun suñu waajur sax foofu leen jógee waa di nga dégg ñu ne la ndongo Afdaay nga juddoo Afdaay yaroo Afdaay mm-hmm. ndax bokkuloo woon si ndongo yi nga xam ne dañ sax dañoo def yu garaaw a garaaw a garaaw nañ ko wax rek dee. Ah, ay teg sa xoo yeeg bara mun naa laa konteel na ñaata yoon laa fa xëy na dañoo grow up di nga dem ay cinéma yu mel noonu waaye am na barab yoo xamante ne xamuñ ko duñ fa daan dem ak yooyu. Ah, afdaay lañ nag wax dëgg yàlla dem nañ taati paak dem nañ ca Tànba ah, foyi naawali na dem naawali dem jàppi ay rite ji ay bar. jàpp ay e, e, kacok kacok ay kumba doyu waay yàlla daf e, dafa mel ni ma doon gis lii faatu dama daan bugg a toog gi nga bu timis jotaan beñ lii ba pare rek maa ngi toog sama wetti maam ak jëkkëram su ko defee may laajte ba pare comme lii binta def nii téye bug di binda man dama daan laajte famille bi lan lañ bokk ak ñii wala mm. ñun lan lañ bokkee ak ñii wala ñii ak ñii nan lañ bokkee wala ñii bi ñoo ñëw Banjul lan naka lañ fi ñëwee yu mel noonu maay binda di laajte man dama daan laajte nag mm-hmm. moo tax got lots of records information particularly oral history about Banjul lan moo sanca fii lan moo sanca fële yu mel noonu waaw dinaa bëgg a dugga tuuti eh, dañ dee gis ne eh, ndaw suy laajte lu bari mhm. dañoo ne ndaw bi eh, ndaw bu faraw la mbete ndaw dafa goog ah mbete kii dafa sol mbuus yàpp mag yooyu yëpp dañ koy dégga ah, jamono yooyu naka la meloon yow ak sa ay waajur non non definitely léegi-léeg su ma ay sama ngi fàttaliku su ma daan wax daanaka maa ngi nekk xaleel nekk ci théâtre bi yooyu doo géwél xaw na nga xam ne doo doomi géwél famille bi nga juddoo nangam a mhm. xam nga yooyu da ko daan dégga ngay mhm. grow up di ko dégga mhm. euh, ñoom dañ foog ne xëj na euh, boo santu yenn sant yi wala nekkuloo géwél ak yooyu rek am na yoo xam ne waruloo koo def euh, su ma daan laajte nag léegi-léeg dañ daan wax ni xale bii ku góog la dem ba rek maa ngi wax suma benn tante suma mag yaay la dinaa doon bëgg ngeen gis ko lool ngeen interview ko ku xam mbiri famille bi la moom it muy ñuy bi ñoo wax ci téléphone ma mu ne ma gis nga li nga daan laajte démb ak barka démb mu ne ma ma ne ko ah mu ne ma mu la jural tey njëriñ mhm. mu ne ma ndax ñu bëree baree bari dañ ma dee wax ni ah Bambey dey Bambey lañ ma ooyee mooy suñ mooy suma turi kër nga dégg xale yi mhm. naan Bambey mhm. ah, mu ne ma Bambey day lim daan laajte ak lim daan lii ñu ngi gis lu bari mu ngi ko binda ci Facebook bi ak social media bi so mu ne ma loolu tey jii nekk na njëriñ mu ne ma démb dañ daan wax ne da nga bëñ magu da nga goog mu ne ma sa yaay sax loolu la daan wax mu ne ma waaye nag sant yàlla li nga daan laajte te yaa ngi ci jëriñ jaam yi xam nga loolu dafa nekk loo xamante ne fii lañ ko fekk te euh, Gambien bi Banjulien particular they very dismissive buñ gisee ngaay grow up nga aman inquisitive mind léegi-léeg ñu naan la lii du mbiri xaleel comme ñun bi ñoo nekk xaleel dangaa toog booy lekk ñu jël euh, ndawal bi teg ko ci sa ci sa kanam mm-hmm. ñoo mag ñi ñoo laa dogal wala ñu jël euh, euh, ndaw bi ko sa diggi sa diggi loxo mm-hmm. doo koŋ-koŋ bool bi téye bool bi yu mel noonu soo bi ñoo nekk xaleel dañ la naan lii xaleel du laal lii xaleel du def lii man nag dama daan laajte lu tax mm. man dama daan laajte lu tax mm-hmm. ndig boppi koŋ dañ la naan doo ko foga doo moccaat boppa soo ko moccaatee nanga ma naan leen lu tax ñu naan la lu soo soo ko def soo ko moccaat dangaa stupide sa xel mi du neex doo naan ndoxi kooko dangaa lii waaye growing up ma dem ba gis ne ndoxi koko potassium bi ci nek dang ko solat jamono wol woo bi sax bu nit der dañu jël ndoxi koko di ko sol nit mhm. ngeereñ gi ci nek mhm. mané kon mag ñi dañ ko bëggaloon seen bop pour seen yahi kon ñu nit bëggal lañ ko suñu bopp <laughs> eh, moccaat gi nga gis bop yi jën yi naan ko na nga man nga ah. so wolé gravy beeg li ñong yek sax ah, sax géej ingredients yep fa la mo dem mag dañ ko daan ah, so pour xam lolu mhm. xam nga da nga da nga loru waaye dañ la daan dañ daan dismissif non xale du laajte question wala doo lii nangama nangam waaye nag laajte gu bari gi itam baax na daf day jëriñ. ankañ ah, kon nag wax naa leen ko Semester Avenue with a difference ah, suñu gan seeni gan mooy Ibrahima Jawo ah, ngeen gën ko xamee si Bambey tur boobu fu mu jugee waaw Bambey nag suma turi tooma la suma ay papa man moom la ñu tuddee Ibrahima Ndour Bambey moom sikka bi la jógee Gloucester mhm. mooy suma ay papaam nekkoon ci eh, bokkoon ci soldaar yi demoon woo Imboma mhm. Bambey bi nag turi cosaanam la euh, Ibrahima Ndour la tudda waaye moom yaayam Coro Diouf dafa yara daloon yara mu nekk taawi euh, yaayam ñu jël bambe gi tuddee ko ko bambe ci soose yaakaar naa euh, ndegem ñoom ñoo soose yee toggoon sëkka bi ñu ne mooy diggante ñaari balling ñaari plot mm-hmm. comme tool nii soo amee fii tool am fële tool ci diggante bi mooy bambe ñu jël loolu tuddee ko ko muy turi yara daal bambi bi nag moo dem koo dégg mu ne ma bambi rek na uur ne ku bokk ci famille bi la ku ma xam la bu baax a baax ku ko xam démba la angeñ <laughs> loolu am na solo ah, ñu dugga tamit si youth work nga def lu bari bari fii si biir Gambia si wàllum youth work mhm. ah, man su ma ah, xam naa la dinañ ne youth work moo tax ñu xam la mhm. ñeneen ak ñeneen youth work moo tax ñu xam la si Red Cross mhm. you si wàllum théâtre ak yooyu noonu yëpp am si master degree ñu bari nag xam naa ne ñàkk xam euh, li nga xam ne moo nekkaane ki nga xam ne tey mooy suñu gan am na master degree euh, te xam ngeen ne ñu bëree bëri euh, duñ am li nga xam ne mooy masters rawatina nag si wàllum community work rawatina nag si wàllum li nga xam ne moo nekk gis ne ñit yaa ngi dunda li nga xam ne moom leen war a dunda ñu duga si wàllum youth work ñu gis ne liggéey nga Red Cross mm-hmm. you know dem nga si wàllum théâtre ak ñu ni mal lan moo la ñaax ba nga duga si youth work force balaa ñu duga si théâtre Soumaraka mu ngi laa euh, Soumaraka euh, man bi ñoo grow up man maa suma ñoom Mbacke ñu ñëpp euh, dañ nekkoon ci lots of youth organisation si fii growing up dama bëggoon a préoccupy suma bopp with something loo xamante ne daf ma dina ma jëriñ dimbale ma ma bokka Red Cross nekka in drama nekkoon naa national drama nekka yeete ndax li ma doon try mooy pour try occupy suma boppa gannaaw studies bi ak dem dayra yeeg yu mel noonu ma bañ a ci Euh, euh, youths si nga xamante ne ndax boo jógee waan Banjul te nga jógee Afdaay dafa yomboon pour ñu lebel la naan comme li ñu wax ndongo Afdaay laak euh, lii lañ nangam lañ ak yooyu. Mhm. su ma bëggoon a occupy suma bopp ci loo xam ne maa jëriñ ma nekk in Red Cross bi maa nekk xaleel bu tuutee tuutee tuutee tuutee. comme ñaata at man foog ne bi maa nekk Red Cross I was about nine. si laa dugg Red Cross léegi ma nekk fa. Euh, su waxtu su workshops jotee maa ngi nekk xale da ngaa dégg ñu ne man naa def vote of thanks maa ngi nekk xale bu ndaw at the age of 9 10 11 su suñ defee workshops wala ñu am conference I'll be one of the people ñuy taxaw joxe vote of thanks thanks panelists beeg euh, trainers yeeg yu mel noonu ma grow up ci loolu so man mun naa wax ne my public speaking career ci foofu la starté at school euh, su commonwealth jotaan of course ñu solal ñu cosaan nga taxaw ñu nga def théâtre def ay wax and all so it carried on from there ma uh, nekk nag the Yaga represent from my primary school they attend uh, the represent summer school in uh, quiz competitions debates ak yooyu fekk maa ngi primary school dem secondary school dem high school def lulu noonu yëpp ah uh, loolu mool ma nag mu dimbale ma in public speaking ba pare dimbale ma in terms of confidence in terms of building my confidence ak and ak so this is how I pick up youth work ma continuer ci wàlli Red Cross géeg yooyu euh, ma nekk secrétaire général dem ba lii nekk secrétaire général of Bayo moo nekkoon di Banjul Youth Organisation comme for exemple tey moom moo la gars yi di ooyee foog naa mooy euh, di Banjul Youth Committee or whatever di Banjul Youth and Sports Committee ma nekkoon di secrétaire général of Bayo trou noonu laa demee nekk di first elected person pour represent Banjul in the National Youth Council ñun ñoo draft the youth policy in 1999 I was one of the ones ak uh, ndem si yàlla si Kumba Sarr suma benn cousin uh, ñoom Modou Bari xam nga ñun ñii ñoo daan dem di represent Banjul uh, in those days dang daan am ñu jógee KMC URR region si yëpp ñuy ñëw def ay proposal lii moo formulé di national youth policy ma the di ma at di national youth council maybe bi maa jógee fii pour dem Angleterre in 2001 di represent waa Banjul foofu noonu so this is how I started in Banjul City Council youth think nga xamante ni ñoo daan wóor di a youth si def naa health you know uh, dem round si community bi def outreach work ak yu mel nii yëpp def naa ko journalism def naa ko liggéey naa ci rajo bi. Sud FM eh, mhm. xam nga growing up and I train as a journalist def naa a formal training in journalism. am suma am suma ma at the Gambia Press Union. Mhm. and that was done by um, I think somebody from the Guardian from the Guardian team for for I think two weeks ñu uh, am suñ certificates here yooyu noonu and I did radio comme li ma wax for uh, sometimes dama daan def ay waxtaan def news in English wolof and mandinka ba pare maay def history programme foofu noonu am fa suma show yi boppaak yooyu noonu liggéey Red Cross nag Red Cross li tax ma dama fa nekkoon di uh, di the representative for Banjul in the national council in the national committee for the Red Cross. Mm-hmm. Uh, ma jiite woon youth si ba pare ma dem ba jiite di Banjul Red Cross ci boppam nekkoon ci branch office bi maa fa nekkoon di designated officer tam uh, maay daan jëlee youth si fii yóbbu leen senegal ay camp yi ngaa gis nii. Mm-hmm, camp yi ngaa gis nii uh, dama leen daan yóbbu foofu noonu dama daan yóbbu youth yi dem naa gaanaak yii yëpp fu nekk dem naa fa loolu yëpp mu nekka loo xamante ne macha allah. Euh, xam nga mbir la daal moo xamante ne dimbale na ma moo tax it was very easy bu ma demee Angleterre ma dem def suma ma nekk ci wàllu théâtre ji fii tam bala maa jaar yeete jaar naa góob gar national drama yëpp def naa ko bi ma demee Angleterre nag it was easy dama demoon pour def suma HND highest national diploma in acting and directing because I was so much into acting mm-hmm. foo naa ne si foos Gambien góor yi nga xamante ne génn nañ télé di théâtre ak yooyu. nga dégg label bu nekk nag nga dégg lu nekk. comme ñu mel ma ah. goog mhm. lii du yëfi Gambie nag lu nekk dégg nga ko ndax time boobu. Mhm. Gambie xamuñu woon xamuñu woon loolu. waaye tey jii sant la ñu ngi gis you know all these theatre groups ak drama groups they are springing up everywhere. ma eh, jógee fi dem defi suma HND in acting and directing jogee fa def my degree in social work ma toog ba mu ma ne waaw man. mbiri ndaw laa yàgg a yëngatu mbiri community work laa yàgg a si laa dem nag def suma masters bi in youth and community uh, development youth and community work loolu laa def ma jeexal in 2007 uh, bala maa jeexal maa ngi liggéey ci kansu bi as a manager uh, in housing as well xam nga dama di dégg nga naan janax bu buggee mucc dafa bari pax <laughs> ndax nit ki da nga war a versatile nga am nga spread your tentacles in various areas nga xam ne ëllëg ak si biir bu dara xew bu fuñ la fuñ la làmba rek daj la fa. Mhm. ma noonu laa mel lu nekk laa dee def nag fa. macha allah ma ne ko macha allah loolu leer na ba noppi ah, ñu bëggoon a xam rek ah, jamono yooyu noonu dañuy gis ne ah, nekkoon nga Gambien bu njëkkee taxaw si góor. Mhm. di ak théâtre. ñu bëggoon rek ko xam naka la meloon parce que soo daan ak théâtre dégg neen dafa am ay kàddu yu la ne kii dafa góor jigéen kii kii kii mm-hmm. dafa mën a wane wu yooyu yëpp dañ koo dégg yow yan lañ yooyu yëpp dégg nga ko di nga dégg ñu naan ah lii du yëfi góor lii yëfi jigéen la waaye tey jii ah, ñu bari nañ faate ne di ah, actor himself wala the comedian dafa nekk nit koo xamante ne li society di goox yi loolu ngaa jël wone ko ak yenn mbir yoo xamante ne dee di ills in society nga bugg a koo feeñal man mun naa toog nii rek xool sépp fii rek sépp si kaw xool garage bi xool siin si fee xew rek binda a play on it wala jël rôle def lu fa nit def rek génne ko. léegi waaw xool ma. <laughs> nga bina a play ñu ñu ñu nu muy demee. ah xam nga Fatou Samba fii Gambian Talents télé la. Ah. <laughs> Gambian Talents TV yaa ngi nii. Ah. Fatou Samba ah, ak Semester kon nag xaar leen ko fii ngeen ak Semester Avenue ngeen ànd ak suñu gan. xam kooku mooy kan. lay lay lay laaw ah to him so oncle Diawo. Ah, gis nga oncle bi daal xaw ma lan la nii wax leen ma oncle bi na ma bàyyi. Mm-hmm. so ba léegi rek ah, ñu gis ne tukki nga nga dem Angleterre in 2001. Mm-hmm. Mm-hmm. lan moo la yóbbu Angleterre naka nga amee ah, yoon yi dem Angleterre gis neen acteurs yu bari ak actrices yu bari yoo xam ne ñu ngi woon si dëkk bi through yu know acting bi moo leen yóbbu after ñu dem daw. ndax noonu la fa demee sa saa. non ma bëggoon a develop a career on it euh, fekka balaa loolu demoon naa Angleterre représenté Red Cross oh. waaw on a international youth exchange programme ban at euh, euh, in 2000 in 2000 dama demoon Red foofu noonu léegi yàlla dimbali ñu dëkk bi ñu nekkoon muy Leicester mu am suma broda koo xam ne ñu ñoo grew up moom mu ngi woon Serekunda branch moom waaye tey ji lecturer la si université bi programme bi ma def masters bi ma def moom la study ñun juróomi gambeen rek am masters degree bi in youth and community studies. kan man la eh, Ibrahima Diawo nga am Moussa mbay am Momadou Sala moom moo ko di fees gambeen ku ko def nga am Ibrahima Seydi nga am Malang Diassi ñun juróom ñii ñoo def masters programme bi in youth and community studies ñoom ñëpp ñoo ma senior nag ñoom ñoo ko def before man. waaye bi ma demee ñoom fa laa leen fekka ñu eh, bi ma demee ma amoon interest pour register at Leicester College. pour def acting and directing time boobu maa ngi liggéey government fekk maa ngi liggéey PMO. Mhm. PMO laa doon liggéey. ma bi ma jógee si international youth exchange programme bi ma fekk defoon naa suma application bi ma demee foofu noonu pour college léegi euh, waaye sponsorship nekk problème to be honest things were not easy waaye ndeysaan fekk maire baa ngee dunda euh, xam nga jigéen rek mu nekkoon koo xam ne maire bi tam ku ñu taxaw la bi paa bi taxawee taxaw na waaye man moo tax nag. ma teel a am indépendance man dama teel am indépendance man Fatou. Mhm. dama teel a am indépendance bu baax a baax a baax a a mhm. Mhm. Ah, gis ne ah, dama moo taxoon ma nekkoon in acting. dama daan def suma suma own advert dama daan def advert si télé bi. ak yu mel noonu ñuy laa fay in those days. ma bokk ci force Gambien si génn in télé di advertise. ay ñaata ah, time boobu noonu dañ la daan fay ay two thousand dollars. déedéet jamono jooju loolu xaalis la. waaw one minute advert on television. te macha allah. man feyal naa suma boppa A levels man feyal naa suma boppa A levels te loolu yëpp ci lii ci loolu laa ko amee so loolu nekkoon loo xamante ne njëriñ la so bi ma demee ma am ak admission pour war a dem maire bi jàppa si ni daf daan jaay cuub moom ma afamoon boutique wad na daan jaay cuub nekkoon jigéen ñi jigéen ñettekat jàppale ñu ci wàll googu noonu ak li ma liggéey li ma dajale woon ci wàlli acte nag yooyu ma dajale yëpp suma savings close ko ak suma benn yaay ju baax di yu saale opportunité bi euh, bi ma bàyyee PMO liggéey naa Trust Bank briefly euh, waaw suma benn yaay ju baax ku ma fa fekkoon muy anti sagar fay maa ko gërëm bu baax a baax mu jàppale ñu moom it loolu mooy li ma jàppale ma dem Angleterre dem defi suma degree euh, defi suma suma HND suma diplôme of course nekk fa things were not easy ngaay liggéey di feyaale sa boppandi fi kooloon na pour sa yaay dimbale la waaye Wally Air Ticket su ma yaayee ma dimbale ak suma anti bi ma laa wax nii mhm. anti sagar ak li ma am si loolu ndi in those days ticket seer na mhm. euh, tey soo ko xoolee nekku dara mhm. waaye jamono jooju noonu in 2000 a ñuy laa wax naan ticket ticket one way ticket ñuy laa wax ne 7500 wala 9000 dalasis xam nga ne loolu jamono jooju loolu xaalis la woon ñu laxasu nag yàlla dimbali ñu ñu am jom dem def fa lu ñu def suñ njaboot gi amoon fii yóbbu leen ñu nekk fa am fa soxna mu amel ñu suñ njaboot yooyu macha allah tabarika allah daal macha allah mu ne ko Euh, saa su ne nit dafa toog ngay ñee borom waaye xamuloo kooku fan la jaar ak ay family am Semester Avenue is here to inspire you so join us ñu wax la euh, kan mooy a Jawo ak story am euh, ba léegi rek ñu gis ne acte nekkutoon lu yomba lan moo la gën a dugal nga dem di act ndax da amoon si sa mbokk yi let's say sa beneen nijaay mi te sa papa di doon act moo tax nga dugal si act ndax da toog rek nga dugal si waaw tooguma rek ma dugal si nag soo bàyyi xel euh, maa ngi laa wax ne suma maam moo ma yar mm-hmm. ñoom originally seen maam yi ajoor ajoor lañ muy waa kajoor lañ mm-hmm. ñu ñëw Banjul ci bi ñoo establish Banjul mm-hmm. euh, ñu dégg olof tam torop torop torop torop torop euh, ma juddu yaru ci keppaar googu noonu ma maam su su ma waxaan dara mu ne ma déedéet buñ ko waxee nii nii lañ ko waxee I noted wala muy muy maa wax ay kàddu ak les baati olof dama ci xam fo naa idiomatic expressions am naa ci over 3000 di maa ngi spaton di ko binda pour def ko book waaw euh, ma gis ne daf daan wax ay léeb yu bëree bëri yoo xam ne ma day jëriñ léegi euh, li ma daan note down noonu euh, ma gis ne ñu bëree bëri saaka wax baa ñu ñu bëri dégg ñu olof olof daf leen réer soo loolu ba pare man suma maam daf daan nekkoon na bale Afrique yaa ngi understand jamono jooju ñooy nekkoon indi sixties ñoo ñoo fi nekkoon di naan ñoo daan fecca ballet yeeg yooyu noonu yooyu foog naa ne man my inspiration came from there ba pare through poetry ndig dama daan toog di bind taalif damaa toog rek xelaat dara ne waaw joxe deret baax na boo ko joxee nangam ak nangam kom yooyu am inspiration on something rek binda ko oh, yaa ngi understand in wolof mm-hmm. ba pare def di english uh, translation of it tam so yooyu yëpp moo indi um, ma nekk nag ci euh, bi ma comme li ma laa wax ak primary school xam nga nga ñu gis ne ku goog nga. Mhm. ngay dem school su commonwealth jotee ñu ñu bind a play ñu dem jël la ne yaay play papa bi. Mhm. xam nga nga sol sa ñetti abdu yi ma dama ah. yàgg a dara a nag. Ah. dama yàgg a bugg a ah, abdu yooyu gis ne yooyu. nga dem su ko defee ñu def la papa nga théâtre ak yooyu soo lii ñëpp xale yëpp di ree di lii moo doon théâtre moo doon lii xam nga growing up in that nga red cross tam ñu am a drama section so ñi maa jox rôle maay play xam nga comme confidence bi maa wax ne in public speaking ak yooyu loolu nag continue di développe di développe lii moo ma yóbbu national drama group ka ma jógee foofu noonu ñëw yeete xam naa ne jaar si maa jigéen seet ko ak mhm. suma gars yi xam nga lii nekk na loo xamante ne macha allah tabarikala loolu mun naa wax ni moom ma dugal ci wàllu théâtre jamono jooju it was difficult ah, groupe si bari wuñ woon te balaa télévision di ñëw ñun for exemple yeete dañ daan def suñ théâtre yi boppa théâtre yi nga xamante ne moom la ñoo def ñu liggéey with NEA uh, e ñu liggéey with UNICEF liggéey with uh, family planning ñoo ñëpp dañ leen defaloon ay théâtre ñun dañ daan toog nii ni ñu toogee nii youth front fii lañ daan ci kaw soo passé kër gi nii two stories from fii fa lañ daan toog dañoo toog nii bu tàkkusaan bi de kenn ku nekk ñu ñëw fa la ñoo julee tàkkusaan bu ñu julee tàkkusaan ba pare rek dugga si dañoo toog rek Fatou Samba ne lii laa xelaat Khady Niang ne lii laa xalaat ñun ñëpp waa Kambay Modou Moussa uh, maama yaare ñoom maa jigéen kenn ku nekk ñoom Adama Mbuub ñoom Faye ñoom Mbaye kenn ku nekk ñu toog brainstorm on on on on a team suñ ku nekk indi dafa mel ni yow mu yow mu dem sa sa rek kii jëndali kii jëndali ñu indi rek tooga suñ tooga foofu la ñoo toogee play ko suñ ko playee rek lépp ñor rek ñu jël suñ vidéo caméra vidéo suñ boppa lii moo taxoon Gambia télévision am lu baree baree bari loo xamante ne starté nañ ko bi ñu ñëwee ah, tey nag ñu ngi gis ni théâtre groupe yi bari nañ ak yooyu waaye nag ah, li ñu wax ne roy du nuroo ah, waaye roy du nuroo piir ñu bari ñu ne yéen seen jamono naay théâtre yi duñ daan ñor ah, maanaam daf di yolox <laughs> ñeneen si gars yi di wax ne eh, maanaam eh, you eh, doo gis de naka la ñit yi ak fulak fayda bi si si gars yi tey ku la waroon a jox théâtre tey jox la ko démba bu tey mooy daxa bu démba loo wax bu tey mooy daxa bu démba mun naa am because xam nga technology is advancing is mm-hmm. progressing tey xam nga in uh, in cameras mun ngaa def ay tricks. Mhm. mun ngaa indi sounds ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne animations yoo xam ne mun nga ko see def loo xam ne mun loo ko woon a def démb. before waa mhm. loolu benn la. tey nga am moo facilities tey jii nga am uh, opportunities yi nga xamante ne moom nga am tey tey bu njëkk bi dañ daan ñëw nii ci kër. ñëw ne ah nañ leen dem saali ñoom jaaw bi yaatu na ñu dem defee ji fa waaye tey mun ngaa def arrangement nga dem defee ji ko ci hôtel xam nga nga mun a def ay sinsak yi ñu dañ daan toog lii lañ daan use sa xalaat ngaa use nga ini nga use sa own initiative su ko defee noonu nga daan create things waaye tey jii the opportunities are there so this is the difference waaye nag the original the pure one mhm. man Angleterre yi ma fa film yi ma fa play ak théâtre yi ma fa play man suma script du ma ko rit wax ma rek ne li mooy sa rôle rek man ma génneel la ko mhm. waaw soo ñun foofu lañ ñun noonu lañ loolu lañ xam waaye tey boo joxoon xaleel euh, li nga xamante ne mooy théâtre bindal ko ko ne ko tey dafa wara a def movie da nga ko koo bindal lan laay wax soo duggee waxal salaamaaleykum. Mhm. fan laay toog su ma toogee lii laay toogee ni laay non ñun yëpp dafa naturaloon te yëpp a daan flow easily fa ah gaañ kon nag roy du ndiroo piir nangu leen soo leen nanguwutee rek ñu indil leen roy ah yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg piir dem leen mag ñaa ko amee woon démba amete ah, yi ndaw yi yéen it ñëw leen jànga si ñi nga xam ne nag ñooy mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ah, jaawa ñu dugga si sa live um, biir Angleterre 2001 nga dem Angleterre ah, bi nga demee Angleterre lan nga doon def ak naka woon live si sa este bi nga xam ne moom nga fa nekkoon dem base wi noo yaa ngi demoon before uh, with Red Cross and then later nga ñëw but after da nga dem ku stay naka la meloon waaw man originally bi maa dem nag dama xelaatoon ne dama amoon admission for two years at Leicester College man ne maa dem two years rek def suma diplôme rek ñëw maa ngi doon xelaat ne su ma because time bu Uncle Modou Diouf moo nekkoon National Council for Arts and Culture nga wax ak ñoom ñu ne la we will offer you a role here ak yooyu so I was looking forward to that I was growing up I it was never my intention to go and stay in the UK ndax uh, li ma dee wax rek uh, Euh, ñun amuñ dara lu benn gàmbee gi te kenn ku nekk soo sañoon fii ngaa nekk fi ngaa développé fii ngaa defee lépp soo ma dem def suma diplôme bi ma defee suma diplôme ma xelaat waaye bi ma dem bi ma demee lokki li ñun ay góor rek a dëkkoon in a six bedroom house kenn ku nekk sa maa ngi laa wax suma xarit boobu nga xam ne lecturer la Modou Sala ñoom ñoo ñu ñëpp si neñ nga am ñoom Ibrahima Sidi nga am ñoom Moussa Ba maa ngi leen a gërëm ñoom ñëpp ñëwee nañ ñu fa ak seen njaboot yi ba tey te niñ daan àndee fii lañ commencé di ànd ñun ñu nekkee xale Red Cross ñun ñëpp Red Cross lañ nekkoon ñu dem bokk benn néeg ñoom ñëpp ñun ñëpp ñuy study ñi nekk Leicester College ñi nekk Demon Ford ñi nekk Leicester University ñuy dem ñooy toogal suñ boppa Fatou Samba suñ liggéey jee man liggéey naa factory ñetti ñetti weer bi ma mm. demee liggéey naa si factory sandwich factory three months bi ma demee as a student nga dem you pick up a job and any job boo xamante ne mën nga ko pick up you've left a family behind ak yooyu noonu anything loo mën a pick up nga pick up ko so ma def loolu three months ma ne man ku mel ni jaawo ak man my experience and everything ma use my experience in Red Cross my youth experience ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne def naa ko ak yooyu I found a job in in social three months after man ñetti weer laa liggéey ci factory ma commencé di liggéeyal social services ma dem def suma degree in social in social work eh, in child protection nekk ci loolu def loolu lu war a toll ci ñaari at ma gis ne area la boo xamante ne neex na ma waaye Fat Samba tey nga jur sa doom eh, nga toog xëy na mun naa am mu am lu la dal ñu war ñëw génne sa doom ci yow ak doom ni mu sisi si xol yaay mu daw yaram ma xalaat loolu xalaataat ko ne Gambien laa ma gis ne lu métti la léegi-léeg nga dem court wara a yóbbu family court xam nga ndig euh, xale ba nuñ ko maltraité ak problème si fa am ak yu mel noonu <coughs> loolu yëpp lii moo taxoon ma diversify dem def my masters in youth and community studies ma jógee fa dem di liggéey ci council bi euh, in housing ba fu mu nekk ni manager la fa for so many years I've been a manager euh, in the council si housing department bi ma dem tam def a bit of training in law nekk a magistrate tam since 2012 lañ ma si bench bi in Nottingham ah, nekk di first Gambien boo xamante ne mooy saaf in Nottingham. waaw Jawo lii yëpp nekk na loo xam ne xawoon na nubatu. waaw I remember fully eh, bi nga duggee into politics and. am gestu bu ndaw bu ma def ba ma gis ne na nga xamuloo jaaw ku daan at théâtre ah, you know euh, lii dafa nëbatu woon si biir Gambien si mm. xanaa ñu nekk Angleterre xamuntoon loolu ndax people doon celebrate you ban la si xam nga Gambien bi ñun bi bi doon celebrate each other ba pare man tam am a public person waaye am very very private to some extent tam am na loo xamante ne and I don't I don't think I should be blowing my own trumpet. Uh, ayut Gambia. waaw sun la soo bulowutee keneen bulowut la jëlal sa <laughs> maay waxal yow yaay kan mu neex. <laughs> mu ngi noonu ah délai naa celebrate moo tax Semester Avenue ñëw. mu ngi noonu Gambian Talents nag yen loolu ngeen dee def da ngeen dee feeñal nit ñi ah, wax dëgg yàlla Fatou dama bëgg a bala maa continuer jël opportunité bi pour gërëm la. gërëm ah, sa tiim bi. fii gërëm Pa Ousmane Diouf ñoom biñ mi nga àndal Ibrahima yéen ñëpp gërëm leen ndax. li ngeen a def fii nii ci wàlli ndaanaan yi ci wàlli feeñal Gambien ah, tey jii ak a ñoo to ñu ñeewente woon ngeen amoon loo xamante ne ëpp na lii ngeen amoon i bigger platform mm. tey jii li ngeen a def nii national television bi la waroon bigger platform si la waroon waaye yéen li ngeen a def di feeñal ndaan kooko ah, Fatou ah, the thing is comme loolu yëpp man nekkuma koo xamante ne I go about and writing about it ne lii laa def lii laa def ak yooyu noonu li tax loolu sax génna génna mooy bi maa ron for for the mayoral ah. mm-hmm. ah, so people would ask questions lan nga def lan mooy sa background what experience have you got lan mooy sa educational background I don't even talk about the fact ne am naa masters ñu ne so suñu déggee maay wax olof ak yi am na bés ma am kenn ku ma doon waxal eh, ñuy wax di wax di wax ba mu yàgga ñuy eh, mu ne ma man you know what I never thought <laughs> ma ree ah, <laughs> ma ree mu ne man olof rek laa di dégg ngay wax ngay wax olof yu xóota xóota xóot and that ma ne ko waaw waaye àddina noonu la xam nga euh, ñun unfortunately we don't celebrate each other. Mm-hmm. that's the hard fact. Mm-hmm. Euh, macha allah so nga nekk magistrate foofu noonu si Angleterre maanaam dañ la defalal liñ dee def noonu. waaw xam nga euh, of course dang dee am your graduation day muy day boo xamante ne. si talk toog eh, bu ko defee yaa yeneen magistrate yi mooy bés bi ngaa eh, pour wane ne eh, yaa ngee waat pour saaf queen bi and nation ak nanga mag nangam booy just bés boo jël oath of course comme niñ ko dee defee you have you wear your gown people would come your families would come and things like that of course nga def loolu you do you it's only a passage of rights kind of it's only symbolic so of course i am friends, friend su ñëw am suma family su ñëw Euh, ñu pare dem def a big celebration gars yi toog ay benn ci ni joxe drink yeeg yooyu ñu enjoy ko because as the first gambien they were particularly Nottingham mu nekkoon loo xamante ne ñoom seen boppa kontaanoon nañ waaye nekkatoon loo xamante ne ay broadcasted that much waaye sant yàlla xam nga li tax ma dem pour join the magistrate dama gis ne euh, the black community dañ we need to be represented everywhere euh, te soo buggee change the status quo you need to possibly get yourself on every strata of society lii moo taxoon ma dem magistrate because dama liggéey with the uh, with the youth justice team um, the youth offending team because xam nga because maa ngi laa def masters in youth and community studies I was a panel member comme xale yi nga xamante ne mooy juvenile yi dafa am dina not ni kaso waay di nga fa am comme yaay am for I mentor ak ñooñu ñu leen a dimbale so léegi-léeg xale ñu solal ko taak dafa mel ni lam bu ñoo def ci tànkaam bi mu mel ni montar euh, comme six ba six warut a génn six si ngoon ba six si suba wala yu mel noonu ñoox ko time ak yooyu bu ko defee fixe ay ay gadgets yoo xamante ne biir néegam su génnee loolu dina alaam ak yooyu dina alaat police bi ne kii génn na mu ngi fii nañ la mun a track down ak yu mel noonu soo dama bokkoon ci panel bi doon def loolu ma gis ne lots of the young people particularly ñi nga xamante ne they are afro caribbeans ak xale yi nga xamante ne def from african backgrounds ñu ngee dem through the justice system te si suma gis-gisi boppa gis naa ne panel bi li ci ëpp yëpp ay tubaab lañ te tey yow su fekkente ne nit ki xamul kii aadaam wala luy culture wala luy background am dina difficult pour kooku nga mun koo fairly treat lii moo taxoon ma apply dem bokk ne after bi ma jógee ci youth justice team bi ma dem uh, join the magistrate team alhamdulillah pour mun a gis tam ne nit ñu ñuul ñi nga xamante ne ñu faa ñëw am nañ tam kenn koo xamante ne xam nga gis nga place soo fa dee dem uh, Fatou dafa mel ni yow mi dem window shopping tey jii su maa ñëw Gambe télévision ma uh, Gambe Talents ma gis leen fa yéen naa ne ah suma mbokki Gambe ra fa nekka dina tax ma feel at ease hmm. dina tax ma am yëg-yëg ne ah fii su ma fa demee pour suma tawat wala dinaa am yaakaar loolu moo taxoon ma dem join out of the 500 magistrates yi nekk Nottingham mun ngaa wax ne about less than 70 or 80 80 nit ñoo nekk nit ñu ñuul and am the only Gambian koo xamante ne gu ma xam magistrate si soo leen a compté Gambian si foo naa ne li ma xam si man ñi ma xam four other people laa xam kenn ki suma cousin la paa ji boobu Euh, Fall moo Pa Emo Fall moom yaayam suma tante la euh, kooku laa xam ak beneen Gambian magistrate ku nekk euh, yaakaar naa Wales ak kenn ku nekk Bristol ñii laa xam si Gambian magistrates. macha allah kon nag teg leen sa baaraam ñu dem indil leen leneen soo ñëwee holiday fan ak fan nga dee dem. waaw su ma ñëwee holiday nag moo fi nekk su ma rakk bu góor a fi nekk dama dee bugg a ajuma bu jot ñun ñëpp su ma bu jigéen de ko fi waaye def ñun ñëpp dañoo ñëw maa suma friends fii laay julee ajuma fii laa dee endu yaa ngi understand si dée bi nee li every day dinaa ñëw Banjul ndax suma soxla yi ak li ma toppatoo yëpp Banjul laa ko toppatoo yi su ma paree nag door a dem waaye nag fii laa dee indu ba ngoon ah, dina su ma ñëwee nag dama di seeti suma mbokk yi ma dama seeti tanta yi siyaare ji mag ñi dëj yi nga xamante ne ñoo fi amoon suma gannaaw ak yooyu yëpp dem laa bëgg a ñu staatee suñ paree nii ah, buñ paree foofu noonu bëgg naa pour ah, dem dama bëgg a jaale ji suma tanta Mami Konaté moo oncle fils ko ñoo bokk ndeya baay Euh, doom bu jigéen dafa gaañu woon Angleterre ñu indi ko suy hmm. euh, ñoo dëkkoon benn dëkka bugga naa dem jaale ji bugga naa dem kaneen jaale ji bugga naa dem seeti ñoom maa jigéen ak yeneen place yoo xam ne naa leen ko wax. xam nga ne man dama mag léegi. amul problème Fatou nañ la. ah léegi nag nga ma bëgg a yóbbu place yu bari euh, amul benn problème. Ah. def lépp dina yomb. Ah, euh, waaw ñu euh, bari ñëw añ. ñu bari ñu ne. Mhm. Banjul dafa dee. waaw Banjul nekk na place boo xam ne waruloo fee toog di fi proude mhm. lu tax ngay ñëw Banjul yow nga ñëw holiday if it is me man damaa dem rek toog ay place yooyu noonu de ah. xam nga Fatou lu ñu la wax rek ne kër bu keesew na ay fa la dëkk ñun amuñ dara lu dul benn Banjul bi. tey Banjul su ne woon jëfeet kenn ku nekk soo desee guuxi ndox di nga ko ci pour ci pour mu feeñ mhm. ndax ku ci nekk am nga fi sagar wala am nga fi rakka am nga fi doom am nga fi mag am nga fi yaay fi papa te this is where it all began fii la starté lañ toog ñu a fi ay kër toog fi kon ñun amuñ dara loo xamante ne moo gën tey mun ngaa samp sa ay terrasse samp sa ay lu la neex ci kombo geeg yooyu xat moo tax tey ñun ñu baree bari ñu gën a dem kombo waaye buñ buñ amoon lu ñu gënal fii la ñoo toog this is where amee lu ñu gënal fii la ñoo toog kon Adama Barrow utal ñu place fii biir Banjul génn fi foori na yi abal ni ñun ñu dëkk Banjul ñun ñooy waa Banjul xanaa neex képp koo xam ne nag nekkul waa Banjul vidéo bi bu ko seetaan parce que xam nga ne ñun waa Banjul la dañoo dañoo dañoo Banjul Banjul kon nag nañ dem seeti ji Ibrahima Jawo si yeneen euh, anam jërëjëf jaaw jaaw jaaw dañ dee waaw a baax a baax a baax mm-hmm. ah, waaw loolu mm-hmm. ah, amin maa ngi follow sa liggéey na waaw waaw sori nga waaye uh, ba tey yaa ngi <laughs> ah, waaw waaw te amin yaa ngi liggéey mm-hmm. yaa ngi see def waaw waaw pour yóbbu réew kanam waaw ëpp sagantumaa nag amin amin xale yi itam waaw yaa ngi leen a amin ñaax si si si àdd ah, waaw ne amin amin eh, la waaw nit mën na si am liggéey yu no lay def si teranga yu eh, no am si teranga waaw waaw comme ni nekk eh, comme ni di nekk ingénieur mba accountant rek mm-hmm. waaw di sutura boppam sutura ak ak ñeneen ak ñeneen ah, la at bi itam loolu xaj na si waaw mm-hmm. ku nekk war a téye sa place rek nag ak itam soo si duggee ñu mel ni yow nga fay daal ko waaw waaw métier waxoon na ko amin amin laaj soo ko faydalut waaw ah doo si jëlee dara de waaw waaye soo ko faydalee waaw amin amin li nga si am laaj ndam you know sa réew am si ndam waaw yëpp amin amin boor waaw waaw waaw so so di kontaan nañ si lii waxtaanee. waaw waaw jërëjëf macha allah waaw te te. yéen la ambassadeur ngeen. Mhm. ah kay loolu am na. waaw waaw ambassadeur ngeen. Mhm. waaw artiste ah, am nga am nga am political diplomat. Eh, waaye am nga artistic and cultural diplomats also. yéen ci ngeen bokk. waaw ah, dégg <laughs> loolu laa de wax gars yi di positive images of the Gambia ba pare ñun naa yàlla dénku ñu jamono dénku our arts. Mhm. we've got our own culture that we can export. waaw waaw won nit ñi ne. waaw am nañ lii. waaw loolu bokk na ci li jaay réew mi. waaw waaw loolu am na solo. boobu dëgg la boobu dëgg la loolu am na solo. waaw Aliou gërëm crew bi itam ñu ngi liggéey. waaw Gambian Talents waaw waaw waaw dëgg la yàlla maa ko wasanga ni. waaw ah, ñoom ñu ngi. Ah, Fatou dafa actif. wala Fatou dafa actif. waaw macha allah eh. moom ak team am bi kay. te xam na subject. xam na subject ah kay ah kay. waaw waaw ñeent raay ah, te. foo ko foo ko yow ma Trans Gambia la ma fekk man dama tiit. <laughs> ah bu gën loolu man da ko lay def fii. fu nekk la ma dama tiit sax <laughs> Ah. <laughs> that's right that's right yeah mm, mm, mm. that's right. so I brought you guys. a token of just uh, gifts. okay waaye dama believe me? it's got historical significance The old ah, stars of the Gambia ah yo, yo. Eh, kay wal matériel la. loolu soo loolu. waaw filateli tax ma indiwaale. waaw waaw li mooy filateli. lii eh, waaw royal visit bi. royal exactement 61. 61 exactement waaw December 12 uh, to December 14 1961. waaw commune bi. dafa rëy eh, waaw I got this from the family. waaye ma yóbbuwaale ko. waaw ñu polishaat ko defar ko. suma maam Ibrahima Ndour moom lañ ma tuddee Bambe Ndour. waaw he Boma. Ah. Um, um, he was born in 1910 from Avdai. So I'm from uh, uh, Sekabi, Gloucester, ah. 34 ah. Gloucester. Ah. So this was a medal with Amsi family. Mahalani, it would be significant. Ah. Pour uh, it says star at the bomber star. The bomber star, exactly. so li bena medal la bo xamne ci ah. suma yela ko jele won ma denc ko way xelat na ni fo na the National Museum would make better use of this. bi waaw bi alali réew la. bi alali réew la daañu ko dencal display ko. Oh, mu noonu so loolu tam ma ne xaaral ma indi que Gambia amin comme sa maam luñ ci si. si mhm. bi. di dëgg la dafa bëri. léegi loolu dëgg la. am na comme la ñu mel ni moom ñu demoon xeex. waaw. waaye ñu fi des dañ daan teg xaalis. dëgg la wax nga dëgg. ba eh, jënda gaal. ah ok wasip. dëgg la ñu call HMS Gambia. Gambia ok wax nga. ba jënda beneen amin amin amin fighter jet called Spitfire. ok eh, yëpp teg. ndeysaan. ndax amin Angleterre mun a xeex yi. waaw waaw macha allah. boobu beneen history la history la <laughs> waaw su ma ne dama ne xaaral ma indi ko jox leen ko. waaw yéen lii moom. is highly appreciated waaw waaw lii lii family heirloom la. la ok waaw amin dañ laa bind formule la ko bàyyi sa adresse. Oh, jërëjëf dañ laa bind acknowledge receipt. that's fine thank you so much. waaw dégg nga su ma yaayee ma ko joxoon. waaw waaw waaye ma gis ne maa ngi ko. non non history la police nañ ko def nañ ko yëpp. fi mooy këram fi mooy këram fi mooy këram jërëjëf dégg nga. the other thing is. this is the. Um, this is the what's it called. the two part pound coin wow. uh, in celebration of the uh, abolition of the slave trade. Wow. in 1860 in 1807. waaw ma xam ne gannaaw loolu lañ uh, lii Banjul mu nga ko génne. waaw waaw waaw so ma ne xaaral tam ma indi mu ngi noonu. 1807 so 1807 waaw. ma ah, ne waaw yow. ma ne xaaral yow moom yow moom yi for nañ de pour ma indil leen ko pour xam nga. Mm-hmm. Uh, réew réew yi ñoo ko doxal. Euh, su ma nee su ko defee. Ah, bii sax dafa méngoo ak fii. parce que euh, buñ ko defee la eighteen o seven. bu loi bi génnee. Mhm. waaye dafa am ñu naan sàcca. dëgg gaali américain si waaw a mhm. ak ak gaali espagnol yi. Mhm. soo ci la tubaab bi wax ne. kale ñu am jël Banjul. suñu tegee ay fetel. like amin guddi. ku bugg a sàcc di génnee jaam dañ la mën a bomb. bombaat la. ok moo waral kan kenn. ci a State House. ab mm-hmm. dem fot bu def fa am ñaari yu ah, géej ah. as item bi. this is in commemoration of the life of uh, Princess Diana. waaw boo my mm-hmm. uh, favorite icon it's a gold coin. waaw moom in mm-hmm. commemoration of her life. ma ne ma isi ko tam ne museum bi xale yi nga xam xamuñ. Uh, Diana su ko defee ñu xam kan la. waaw waaw jigéen ju jigéen ju am fayda. fayda waaw am am am am ay na qualité. c'est dëgg la waaw bi ko man doon def research. ok li xam yaa ma ko wax. waaw li yaa ma gën a xam. wolof dëgg la ah, kër wolof. kër wolof waaw. lu rafet. <laughs> ñu fanaan am nañ si lu mot juróomi baat. baat. i ko am nga rafet. set waaw. ay am nga. amin taaru. Mhm. am nga ku em. Mhm. am nga am nga ku mat. Ah, ak beneen ak beneen ak beneen beneen macha allah moom nag yëpp la boole woon boole woon lépp la boole woon yëpp la boole woon waaw waaw moom kay <laughs> alors léegi dafa jafe léegi dafa jafe dafa jafe waaw yàlla boole la lépp waaw moom yëpp la lépp la boole woon macha allah waaw anglais on dit quality of beauty non definitely yaa la boole woon waaw that's right that's right ah, jërëjëf waaw jërëjëf kontaan naa dëgg very much jaaw jaaw jaaw jërëjëf jërëjëf waay waaw thanks for coming waaw salaamaaleykum maaleykum salaam Fatou sargal na la. naka nga def. ma ngi fay na nga def. tey Semester Avenue den ñew ci sa place. kan mo ñu fi ene waaw Mr jawa mo ñu fi ene indee. ñu gis ne Semester yi mhm. eh, mhm. den dee ñew ci biir dekk bi. but place bi nekkul place bo xamne ne dañ ko fulal di ko seet ñun ñu nekk Gambia sax. dañ mhm. dee faté ne. waaw. mission mu ngi fi ah. so tey soo amee koo xam ne dafa fly from Angleterre mm-hmm. ñëw si sa office mm-hmm. ne daf la seet si mm-hmm. indil la nag gifts yu gën a jara nekk gift yi ay million dollars am yu am njëriñ yu am njëriñ laa la wax parce que comme nu la wax rek bu nekk si lii laal na si history Gambia waaw comme yii nii ëlum ndawee la amee njëriñ <laughs> yii bi 65 la génn bi moomee suñu bopp xam nga bi léegi amatul fenn bi Queen bi buuri Angleterre e ba mu fi ñëwee December 12 to 14 1961 Père Ndiaye moo ko tertu yaa ngi gis soo yii nii amen amen amen mu nga wax ne history Gambia history Banjul si yum indi nii yëpp bu nekk laal na si waaw ab yii nii mu ngi laa affaire yi booma ñu demoon xeex ma ñu demoon xeexi waaye if ñu fi sax liggéey nañ pour dimbale Angleterre. ndax ñu mun a amin amin amin amin amin daan Hitler si xeex bi. Mm-hmm. waaw asoo ah, yi kontaan nañ si. Mm-hmm. waaw te tey di wax nit ñi rek ne soo ñëwee ñëwal sa njaboot yaag sa njaboot ngeen seet si place bi. amin su xale yi di jaru Angleterre ak bitim réew loolu baax na waaye museum bi daf leen a gën a ñaax ñu bëgg seen réew fonk seen aada ak seen kilifa parce que lu fi nekk yëpp pour loolu affaire yi aada Gambia ak cosaani Gambia affaire yi yar ak teggin moom yoon affaire yi diina mi muslim mi christian loolu la ñu wane si mission bi so lu nga def ni kontaan nañ si trop amin amin amin seen ñëw nag daf dee xat ay ñaari week ay ñetti week waaye ku ñëw Banjul jaar fi doo fay dara nga ànd ak sa njaboot sax nga jël netaal waaw su ko defee xale yi amin amin mën a seet seen cosaan ak seen cosaan yi baay ak seen cosaan yi yaay macha allah waaw so tey nga am gan ji eh, mënoon naa ñëw eh, gis nañ ne Gambia fu nekk clocks yaa ngi bari waaye xam nañ ne alaaji la ah <laughs> waaye tamit gis nañ ne ah waaye man nag li bettu ma mm. moom artiste la mm. bu ma doxal fii ah ñu bëri ngee ñu bëri si kaw léegi mm. ju dooguñ sax man laa ay 95 man man boo ko jëkk a taseeg moom mm-hmm. ah mm-hmm. ay 96 ay 97 Gambia ngi am télé i ah, so i mean ñu bëri nga doxal légui ah mo leen wan bunta bi dé waaw wa lu mala ay 25 years ago 26 years ago c'est bala lolu sa mu ci théâtre groupe bi bala lolu indi ali 90s waaw il affaire bi ndax sa jaar na ci il ci bulletin bi waaw so so mean i mean diko i mean delo ñukal rek so don't describe ibrahima diaw no ko describe artistique ambassadeur la man ko wax légui man ko da am carrière diplomate mm-hmm. Ah, waaw moom artistique diplomate la waa aar ah, bi dafa fort daf si fort waaye dafa bëgg a itam am na ko ñëw fi def programme ak man ma kooku ñu doon jokko mu ne ko ndax nga génne affaire yi cosaan yi ak yéen taarix yi ngi gis amoon naa dem sax ba bëgg a moom Banjul sax la bëgg a meew loolu mu laa wan ni amin ko am intérêt ci dëkk bi la mhm. waaw waaw so loolu itam di ko si gërëm amiin amiin di ko ñaanal waaw. waa kër bi wax neen waaye nguur bi wax neen xam ngeen ne xaasum su waxee xam ngeen ne nguur bi la représente euh, kii mooy directeur yi wàllum arts and culture yëpp moom lañ ko teg si loxoom kon su describe ki nga xam ne mooy Ibrahima a jël leen seen xam ne loolu la wax kenn mënu si dara nañ dem xool ko fa da ko yóbbu around ah, waaw waaw waaye that's right that's right yeah waaw waaw waaw bu xam nga. bu xam nga. xamee wala ma mag la. bu xam nga. bu kees bi amay am Pickaxe. aso ci lañ gaaw waaw ci lañ gaaw la rescue ko. Ah, <laughs> bu cosaan la. waaw ci taarix bi la ci la bokk su la ci la waaw waaw waaw waaw yes yes yes yes yes. waaye bëggoon naa ah, yaa ko njëkk a woon. Um, waaw. so this ko dama ko dama ko wax ne kaay fii lañ njëkkee. dama ne ko because Afrique leadership. la ah, comme affaire yi amee la leadership. sip la waaw. waaw loolu ko tubaab ba wax. ok waaw. waaw waaw waaw loolu nag fu ñu toll nii. Mhm. ku nekk ngay joytu loolu. Mhm. the whole world. fi ma ko jógee sax. dëgg la Amérique sax. ok waaw. comme affaire yi amin kilifa. kilifa ma ne ko ah amoon na jamono yi. Mhm. moom ñàkkuñ ko. dëgg biir Banjul laa la waaw. ci laa ko fi dama leen indi moom leen leen ñoom Jaxumpa moom leen ñoom Faye yaa ngi gis moom ah, leen Amin Amin ñoom Fatou Ndiaye Sokone mhm. yaa ngi gis amin amin amin am ba ñëw si ñoom amin amin sa Dawda mm-hmm. mu nekkuloon waa Banjul waaye waaye waaye mm-hmm. kii yëpp fii la ko defee a la ko defee akay amoon leen ñoom small small waaw dama di bëgg itam amin léegi léegi mm-hmm. dañu indi xale yi fii waaw waaw ndax ndax ñu wan leen ni moom naa leen indi waaw ndax waaw eh, eh, because ñii kilifa la ñu woon te eh, dañ daan liggéey politique lañ nekkoon de. Mhm. waaye dañ daan liggéey. Mhm. ah bu politique bi xaajale kenn. ok parce que dëkk bi dafa xatoon. dafa xatoon waaye xoolal dëkk bi lu mu xat xat. Mhm. Eh, amoon nga fi juróomi parti. parti te dëkk bi tasut waaw dëgg na yàlla dara ñaawutoon. waaw dara ñaawutoon waaw xoolal loolu rek. Ah, ah. ko taam bu fii rek la. dëgg waaw waaw. rombut bi rombut rombut bi. waaw waaw waaye dëkk bu ndaw bii rek. ah amoon na juróomi parti. parti dëgg la am juróom-benn newspaper. newspapers wax akay. te dëkk bi tasut. dëgg la waaw soo soo loolu moo tasut gars yi di wax léegi ne démocratie bi dama ko ma leen déedéet déedéet. Mhm. waaw waaw waaw soo moo tax dama leen njëkkee fii. man dama doon dama daf dama foogoon ne lii Bretton Bota euh, riot bi laa ko foogoon sax nataal bi. su ma ko ah, gisee ah 59 bi 59 waaw moom laa ko foogoon. waaw waaw bi 61 la waaw bi 61 la. kii du góor gi Semeka Diané. waaw mu ngi fi ak Kelefa Samba. Samba waaw ba Kelefa yaa nga ne le waaw. taay bi waaw. ndeysaan. Ah, kii. xalamkat bi. kii. Ablaye Samba Ablaye Samba. waaw góor gi Ablaye Samba. waaw waaw waaw. parce que jamono jooju itam. jamono jooju itam. dañ daan dañ daan dafa amoon lu xew jamono jooju. pour wax la rek ne démocratie fii dañ ko yàgg xam. meeting yii. waaw bis bu nekk daf daan am. waaw. KG5. waaw. au Albion Place. Place ok Grand Street. ok. parce que Pâques bi. tubaab bi dañ li daan nangu ñu ñu def fa meeting. meeting foofu foofu ñoom. Makati Square seen place. place la oh, waaw xanaa buur Banjul bëgg a def dara. dëgg ay Empire Day ak. Mhm. ay gan yooyu. Mhm. waaw waaye waaye bis bu nekk. Mhm. parti yaa ngi def seen seen politique. Albion Place. Grand Street KG5. pour wàllu rek ne politique. dafa yàgg dafa yàgg yàgg na fi. te mosu fee tas dara. Ah, kenn mosu fee dee. waaw dégg naa yàlla. you know I mean, amin amin amin amin la si politique. Mm-hmm. waaw dañ daan amin amin waxtaan. Mm-hmm. def seen rally. Mm-hmm. amin amin amin amin uh, uh, uh, you know def seen you know newspaper. def seen mémo amin amin you know la pétition. yaa ngi gis. waaye si yar ak teggi. nañ koo teg waaw. ba noonu lañ amee suñu indépendance. Ah, waaw lu moo tax man dama di wax ne. politique lu baax la. lu baax la. Mm-hmm. su politique amut su politique amudoon. Mm-hmm. duñ mom suñ bopp. boo ko la. waaw waaw koko ko la comme pak la rek. pak la waaw soko ko nga dog yàpp lekk. Mm-hmm. soo ko nga rendi ami nit. ah bobu mom yaa ko def. dëgg la waaw waaw. jërëjëf waaw. inshallah waaw. waaw waaw. ah xam naa amuloo time na waaye kaay ma woon la ah. oh, oh. xam naa amuloo na waaye kaay beneen kii. <laughs> ay pour Banjul rek. parce que Banjul mooy suñu capital bi. te mënuñ koo génne. Mm-hmm. Um, sooy wax affaire yi amee ay Gambia. Mm-hmm. parce que lu nga gis nii yëpp comme clock tower bi. yaa ngi gis bii. ba tey mu ngi quadrangle. mu ngi quadrangle. Oh, bu njëkk bi suñu naan fi nekkal ko daan déggee amiin amiin amiin ëpp na téeméeri at ak dara. dara waaw. xanaa joo xanaa big benn bi lañ copie. waaw waaw xam nga jamono yooyu. Mhm. montoor yombut. yombut dëgg la waaw. Oh, ah, oh, su waxtu jotaan ak xaaf waxtu jot. Mhm. rek mu soni. Mhm. keleng keleng keleng. ñi génn bi rek dem ñi dem you know shift. dem commencé seen shift. waaw waaye nga bii comme yëf yi bàyyi la bi forty eight floor bi la floor jamono jooju mm-hmm. dëkk bi amut amut amul lu ñu ay benn bis na mu taw rek si nawet bi ogos mm-hmm. ndox mi bañ a dem waaw lu mat juróom-benni fan dëgg la génn si gaal ngay jaar jaar waaw Euh, ah, bu loolu passé nag. ak ci def am am une you know a uh, grand street. waaw gota boobu. Mhm. ak pumping station bi waaw waaw ak pumping station bi. waaw ci ko si def. waaye tubaab bi nag euh, du ñaan fàtte seen bopp. Mhm. waaw yaa ngi gis waaw néeg yu jàkka lañ daan dégg. waaw waaw. asi ah, ah, boori marina bi. waaw waaw waaw waaw benn tey ñu ngi fa waaw. temps suuf yi tam waaw mhm. waaw yi mhm. xam nga amin ay demaan ba nekk amin comme pay am mhm. xaalis ah? waaw ak itam pay aku waaw ah, waaw ñu itam nag nañ amoon style classe ah, man loolu sax a bëgg naa si def book ah kay waaw class and style in colonial battles parce que jamono jooju amin nit ñi dañ fonkoon a yire ak dëkkuwaay loolu gis naa ko ci ñoom. waaw mhm. waaw. Mhm. Ah, ah, ah, léegi la nit ñi faaleetu yooyu nag. Mhm. waaw léegi mën naam am oto la nit ñi gën a xelaat waaye waa jamono jooju. amiin amiin lu anglais di wax la sartorial elegance. waaw waaw ak sa dignity. dignity so solo rek la ko nit ñi di mun a xam. kay waaw ak sa am-am. waaw soo soo yiree moom. yiree moom lañ ko fonkoon bu baax a baax a baax a baax a baax waaw waaw yiree moom lañ ko fonkoon bu baax a baax a baax waaw. waaw ah, kilifa yi nag. waaw ah, ah, waaw xam nga euh, Banjul moom. ñëpp la. waaw kay ñi nga wax melting pot ma leen Banjul la njëkkee. waaw wax dëgg yàlla wolof. wax kay soose. Mhm. pël. Mhm. ñëpp a ñëw séeréer. Mhm. you know bambara. tubaab. lebanese. ñëpp fi nekk. waaw waaw gis nga ñëpp. macha sa liggéey. liggéey dëgg waaw ay di liggéey si compagnie yi. ñu liggéey. secrétariat mm-hmm. ak ñii si marché yi mm-hmm. ak jigéen ñu am doole am xaalis xaalis mm-hmm. nag marché bi taxoon taxoon dëgg la waaw waaw waaw am na am na am nañu bëri ñu fi tekki seen yaay jàkkati marché lañu woon waaw waaw boobu nag benn benn kii la bu nga xam ne euh, dama de bëgg di ko fàttali nit ñi waaw njëriñu commerce comme fii dëkki commerce la waaw lu ma tax ñu waxee ñu ne porte bi yooyu am na la ñu complain nag monsieur Diaw affaire warehouse yi. warehouse yi si leen ah neexul kenn de. neexul kenn sëñ bi. waaw ma leen waaye nag waaye waaye te ma leen nag. waaw ah, Banjul dëkki commence la commence la waaw dëkki commence la moom. aw oh. si woo oh, euh, oh, am boobu moom am dimbalewul kenn. dëgg waaw waaw. waaw man xanaa ma jaxale si kilifa Banjul yi. waaw. waaw ñu ooyee meeyo waaw xam nga lii yëpp pour wal rek. Mhm. parce que soo xoolee sax. Mhm. politique xam nga fii la commencé. fii la commencé. waaw waaw ah, a fu ñu ABCC tey mm-hmm. ñu njëkk a def politique Gambie 1931 1931 mm-hmm. waaw ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ commencé BCC ñu bata ko ñu ooye ko Batostan Council mm-hmm. waaw foofu foofu la politique commencé loolu moo tax ñu bëri si ñii gannaaw gi nekk nañ ay njiiti ay na parti ay ay ministres yëpp waaw parce que foofu rek foofu moo nekkoon ay nursery bi dëgg la waaw kon am nursery school BCC moo nekkoon nursery school dëgg la si politique Gambia. moo nekkoon di training ground. waaw training ground. Mm-hmm. ñoom Demba jaar nañ fa. Mm-hmm. Ah, la ñoom Alaaji jaar nañ fa. Mm-hmm. Ah, ñoom Amin Amin Amin Amin ah, jaar nañ fa. ñëpp jaar nañ fa. Alaaji Babacar Dieng eh, ñoom ñëpp jaar nañ fa. waaw balaa ñoo nekk Amin ay ay ay njiiti ay ministre waaw. kon ma bàyyi la ko. ah sëñ bi waaw sëñ bi kontaan nañ bu baax a baax a baax. waaw ah, doy waaye waaye ñu commencé rek wax dëgg lii moom. ma ne ko lii moom jàngat bu bari moom. waarikalla waarikalla kontaan nañ bu soobee yàlla. waaw ah, kontaan nañ waaye kontaan nañ. waaw jërëjëf lépp loo xamante ne mun nañ koo def rek. Mm. pour jàppale. waaw waaw centre bi we will do it incha allah kontaan Euh, liggéey bi euh, di def li nga xam ne nag euh, moo nekk liggéey bi kër bi moo yaaxawoon asalaamaaleykum ñu ngi nuyu di wax ne rek ñu ngi masawu si li fi xewoon li nga xam ne lakka-lakka bi woon moo fi amoon yëgoon nañ ko ñu ñëpp waaye nag métitlu woon nañ ko trop lax ka moom neexut te ñun Banjul fii xam nañ nuñ dee mën a jàppalante ñi fi nekkaa ñi nekkut fii yëpp su dara xewee ñoom ñëpp dañ si dee dañ ko dee métitlu nañ ko te ñu ngi leen a masawu kii nag moo Ibrahima la xam naa moom xam ngeen ko bañul moom kenn du ko wone parce que moom ñëpp xam nañ ko biir Banjul si yëngatoom si lu nekka ñun nag moom moo nekk fële ne le waaye ñun ñu ngi fii waaye terewul lépp loo xam ne dafa xew fii rek moom daf si dee farlu daf laa ne la lan moo xew fële ne le naka la ñoo def ba dimbale leen naka la ñoo def ba yokka si wala ñu defal leen dara lii nag bi mu moom nag defoon na koo soxla waaye daf ne woon su ñëwee dina fexe ba mu ñëw am lu mu teg seen loxo du lu bari nag xeeb na ko trop moom moom xol bi dafa rëy moom Banjul moom lépp loo xam ne rek Banjul la xew rek du lakka wala lu mun a xew Banjul rek daf si dee def loxoom ñun ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu si biir Banjul fii si affaire yi xale yeeg activité yi li mën a xew yëpp lu nekk rek daf si dee def loxoom te nekk na koo xam ne ni ñun kontaan si ay mbiram daal waaye nag tey nag moom dañ ñëw rek mu ne dafa isi xaalis bi pour jox leen ko ngeen yokkande ko bariwul nag waaye mu ne mu jox leen ko rek ngeen xam ne moom xelam daal buy génn a Banjul daal lu fi xew rek moom soxlaam daf ko si def am li ñu jox leen ko tey ñu ngi ñaan nag lii moom yàlla bu yàlla bu amati waaw lii moom yàlla bu amati te bu leen ko gisati mu nekk loo xam ne laal daf leen a daxal lépp loo xam ne rek seytaane la wala lu bon mu toppa ko waaw. maa leen di gërëm maa leen di sant ah mënoon naa toog rek ne du waa Banjul rek waaw waaye xam nañ ko since démba primate moom xëy na fekkee xamul man xam naa ko baax a baax xam naa ko baax dafa dugg si ma ne ko Ibrahima. waaw ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant waaw yaakaar bi am ni ba yéene ñu ko yéen bu tas fi mu jógee yéen dafa yokk waaw dëggale métti na nag yàlla moo ñu ko moo ñu teg natu bii waaye macha allah yéen yëpp si loxo yàlla ñu ngi leen di gërëm na di leen sant bariwut nag xeeb xeebuñ ko waaw fas yéene bi jóg bi rek ba ñëw rek am ittee rek ñoo taxaw rek ñu ngi leen di wax jërëjëf waaw jërëjëf waaw yeneen fa yokk leen ñaane yéen ñëpp yal na yàlla defal jàmm mais leen wér wér le samba njaboot yëpp si kanam parce que Seydina wa sallallahu wa sallam jërëjëf jëf kii moom waaw am ji ba lii euh, mm. euh, ñu ngi leen a masaw bu baax a baax a baax mm. kër torop ah, ñun Banjul fi dañ ci daan ñëw daayira lu bëree bëri bëri mm-hmm. ci ñoom ay def naa wax dëgg uh, xam nañ leen bu baax xëy na géej bi rek moo tax bi li xewee nag suñ broda bi li laay Samba mm-hmm. moo ñu ko wax ñoom ñoom ñoo fi nekk mm-hmm. lu mu di xew Banjul dañ ma dee texte ne ma bro lii moo fi xew la nataal yi yooyu noonu ñu ko masawu ñu ngi leen a masawu bu baax comme ni ko mu waxee uh, wax dëgg waruma ci woon a teg kàddu ndig wa li mu wax mu mattale na uh, ñu leen a masawu bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla yal na yal na fi liggéey yàlla bu fi amati. njaboot yi lii seen nameef yàlla indiwaat njaboot yëpp nekk benn. yaa yombal lekk loolu leen a ñaanal. waaw yàlla jiitu si xol yi. mais muñ. te indi lu gën lii. indi lu gën lii. jërë ngeen jëf. la woon. baax na thank you so much waay ma ne ko léegi dégg la ah kay ah kay waaw fekk ngi nekk lu ndaw ma ne ko fekk gaa ngi nekk lu ndaw def de ngeen sampa télévision fii wallaahi wallaahi la barki Serigne Fallou yéen a woon artiste mm-hmm. yéen añu moom wallaahi yéen Samba Birane Baye Badou laaj may bi kër barak kër. fii mooy fan. Ah, fii mooy Seekeen ah, Fatou ah, xam nga ñun. Mhm. dafa am fuñ commencé wax naa la ne Banjul is where things began. this is the very beginning ñi nak di suma ay nit yi ñi ma ñew hmm. ni suma ay nit demba euh té man dama fonka démba dama fonka bañul ci boppam so ñi suma gëna walal li ma ñom la ba dara du dara hmm. uh, moo tax du ma dugga biir banjul wala ñew gambe wi gëna té ñew ma sétti si leen nak sétti nag seet hmm. si suñ mag suñ lépp di ajaratu jigen jigéen seeka ñëpp xam ko waaw moo taxoon rek mané ma ex fi léegi mënuma àndaa yeen ci bës bi yépp ngeen di ma wóor ma dem. yëpp ma ne te egg ma ci ajaratu maa jigéen. Mm-hmm. loolu tax ñu egg si fi waaw foog naa loolu la. salaamaaleykum. maa jigéen waaye man borode bi rek a ma neex. ah jërëjëf waay. sant bi na euh, nag euh, ñu gis ne ki nga xam ne mooy Ibrahima Diawo ñëw na fi. Euh, ñu bëggoon laa bàyyi rek nga introduce sa bopp. Ah, man la aji ma jigéen Secka. Mm-hmm. waaw man nag. mangi ngi tri Triglos fii waaw hmm. ya. man la Adji Madji Guissé sekk dëkk Triglos fii waaw ya. loo ñu mën a wax si Ibrahima Diawo ya. Ibrahima Diawo nag na doon ma si dama kontaan léegi Ibrahima ba ñoo àndaa mu ngi dem school yàlla boole ñu si ar bi yeete hmm. mu nekk ni ko xam ne nit ko baax te am yar am diine am teggin am cool muy gor soo xam ne duy fàtte dimba moo tax mu indi leen fii mooy gor soo xam ne du fàtte dimba mu ko jàppandi dimbaam yi bu gën a yeete ba jeex xam ne moo ñun la woon ca commencement ba boobu mu ngi nekk lu ndaw yàlla boole ñoo moom te mosuñoo mooy mosuñoo teggi mosuñoo jaaxal mosuñoo coog yar teggin bugg a nag ci xolam bugg a yeete ci xolam. mu nekk nit ku xam ne ku bugg a kilifa la ku bugg a kilifa ku bugg a famille am ku bugg a doomu aadama ñoo yaay ma nekkoon fii gloss la waaye daf ko toppatoo ba ni mu ujji boromam bëggul mu xiif bëggul mu mar bëggul mu rafle dama tasawa na yaayam si koñ bi fii ba mën ne jigéen ak eh, Ibrahima Diawo dama saraka ji day maa mbaa yaa ngi koo ñaanal ma ne ko maa ngi koo ñaana mu ne ma eh, doom ju ma toppatoo doom ju ma bàyyi xel. doom joo xam ne jox na ma cër yaay ba mu jeex te bëggul ma xiif bëggul ma mar bëggul ma rafle lu doom ju baax def si ndeyam rek Ibrahima a ngi si maam mu nekk kàddu yoo xam ne mu sedd suma xol lool te soo ma wax ma leneen ci moom du ma neex nekk na ko am kóllëre taay mu ñëwee eh, Gambie yeete dox ak ni yeete yàggee toog ñaata at waaye du ñëwee Gambie rek ngel jënti yeete pour nu yeete jëmee kanam fekk yeete toog toogaay bu yàgg sax mu ekkati génnee xaalisam def ci ba kaset bi ñoo sut nii ci kattan yàlla moom moo moo ko taxaw di ca ba di ca añ ba kaar kaar du ci transport bi te mooy taxaw teem bu gar ak yeete dem nga xam ne ni yeete groupe bi cosaan la dañ caa nekk kenn ku nekk amula jabar ñi amuñ jëkkër nee nga school. ba tey jii tegu tànka te am na cib Gambie nañu suma néeg bi toog dafa man waxa man ma ne dama ko ñaanal ci xii meeyo bi yéen na ko sol yéen nekk meeyo Banjul ndik ko am itte la te xam nag démba laaj mag ñi toppa mag ñi am yaram na moo ko may Ibrahima yi mu dee nettal loo ko déggee daf laa ne Ibrahima xaleel toppewut loolu waaye am yaram am teggin ga ko su ron mag ñi dox leen dox leen yar motax mu xam demba ar bi ko yalla tam itam euh, du ci jaare nga contane lo waxe dembi bañul nga contane ma sha Allah ba taxna ba mo ba mo nek sun loxo nek euh, xalé dem school exam joté sala nga gis mu ñew aji maam anako ko man wara jël exam bi sangam té manako final togal nga study ba sa exam jeex nga soga ñew sa laa ñëw time ngir sol am gellaan rek ñu contane time bu exam ba jeexee ba sol ci gene rek ñun ñu contane ñun ñun ñi jigéenam di magam fayawut jangam de fayawut jangam fayawut bopam tuxu cigarette tuxu taay naanu sàngara macha allah kaatuma fakalla jangam mi ligeyam bi familien tapatoo na njabotam gi jabaram merew ko njabotam gi merew ko lu mu war def ci ñom rek mu ko def dara umpuma ci rakka ji mbokkal ndey baayam ngi ni fii ak jabarama famille ak ah, rakkam jigéen ji nga xam ne moom la moom la dese waaye moom mooy seen baay ci gàttal mooy seen baay li war lu baax ci famille rek mu ngi koo def man Ibrahima ko la ñaanal yàlla lafal ko cat génn ko cati kanamam ak cati gannaawam génn ko cati biiram ak cati bitiim yal na ko yàlla sàmm yàlla xam ne li ci moom yal na ko yàlla defal ma de kontaan naa ci moom lool lool lool. fi mu na ko dee ñaanal rek yéen ñi ma tiimalee fi ma ma dama dee wàññi sax ndig bugguma cat topp ko ma ko dee ñaanal rek yàlla ci moom ni ko yàlla defal jàpp moo ko mun gor gaa ngi kontaan naa ci moom de yéen ñi àndaa moom ni gor ngeen àndal de ay gor ngeen àndal ko xam nag démba man ko xam nag démba kaarkaatu waa fakkaat la bu xuusee si démb rek nga kontaan bu xuusee si baañu nga kontaan waaw xuusee si nga kontaan waaw. Euh, tey nag ñu ñëw yow ku la xam-xam ne ndaanaan nga. Euh, ku la xam-xam ne Gambia. Mhm. Euh, buñ daan dégg ndaanaan ku la mention rek. dafa mhm. fàtte Demba. dëgg la te Gambian Talents ñun ñu ne kuy fàtte Demba baaxoo. baaxut euh, Ibrahima Diawo nag ñu ñëw seet si ko te xam ne ne duñ génn sa kër ji te wéyaloo ñu Diawo ba naan ne dem. yàlla <laughs> loolu moo yàlla man damaa kontaan sax. Mhm. nit moom dafa neex a wuy. Mhm. Hmm? nit ku baax dafa neex kon doon ma xel rek ma kontaan. ma jaarama ibu jaawo waral beñi dunure jaawo jaarama jaarama jaarama jaarama jaawo banna waral beñi dunure jaawo jaarama jarama jarama jarama jarama demba mooy sa jarama jarama jarama jarama bay mare ngook yow yaa waral beñi dunure jarama jarama jarama jarama ibrahima dunnure jaw jarama jarama jarama gorsi jarama jarama jarama jarama jaw jarama yow yaa dunnure yéen xam ngeen euh, mu ñëw doo ko mu jóg waaye lu ko tey euh, loolu ñun xam neen ko ànd bu yàgg dëgg la ñu gis nit dafay jógee Europe ñëw Gambia fàtte démba fàtte ñi moo àndal Ibrahima Diawo mbaa melu noonu ne dafa xam ne dama ko seet rek <laughs> ah, ma ah, na yàlla mhm. suma mbagg bi wóor na yàlla mi mhm. ñu tiim du kii mhm. Ibrahima nañu kool nañu seet ku am bés moo ca gën bési bànneex ku am safaan ba moo ca gën tay mu ne cib Gambia ni mu toogee nii ak man nii wóor na yàlla billaahi doone billaahi yàlla sa digg nañu toog a man na ma seet na dafa mën na wax a man kii fàttewul démba de yu fàtte demba baax waaye bu lay gor fàttewul démba ku baax a ngi ko am ngor ko am kóllëre yéen ko yàlla fal cat laa ko ñaanal yéen ko yàlla fal cat du ki de ki loolu daru ko le du ko dalon tay do na def na ngeen feñu sax duma du duma du ma nit man buguma waxantu te xamna malaka yak ma digge ñu suma mbagay waye waaye donc may ko wax rek ma sawar am ci sawar lol pour mom lu bax la def ci ñun lu bax la wax ci ñun di dox mboka te nak li mo def ni ci mbokami la ko ñëkke ci famille fa la ko ñëkke dama ne kii mooy seen mooy mooy seen baay mooy seen yaay di lu kilifa war a taxaw ci famille rek kaar kaatu ba fa kàlla macha allah taxaw na ko famille xam na ne yaayam nekk nekku fi papaam nekku fi mu taxaw tànk yooyu def ba mu rafet wala ko nag am diine am yar am respect mun a jox nit cër man de man cër bi ma jox jox ma cër yi mag de cër yi yaay la ma jox man magam laa waay cër yi yaay la ma jox ko am ko rànk nii lu waay xewle rek. ci ci yeete gii Abdoulaye maa njëkk a dugga wax ci yow lu baax ñaanal la defayoo nag macha allah. jërëjëf. Ah, aye Ibrahima Diawo Diawo ba naa yaa baax looloo waral ma wax li mooy aye ah, Ibrahima Diawo. Horaja ya jada fabah aja dangaba Ibrahim jawa weliyo ah demba bye ba da fabah ah ibu dangaba ibu jawa weliyo ah seri lama dangaba ah ibu dangaba weliyo weliyo ah bayi mari danga bak ah ibu danga bak welia welia ah sumarakaji kaji dafa ah ibu danga bak waaw dama sawar pour waxtu moom Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ibrahim loo Ibrahim si ki nga ham ne moom la ñoo ooyee Ibrahim jaaw ak salan la ya, Jawo nag um, wax si moom dina yomba uh, mag la si man xarit la si man um, mu nekk koo xam ne ku baax la and then uh, koo xam ne tam is a mentor to many of us ñun ñi nga xam ne xale leen tey ñu ngi nekk biir Banjul because sag la si ñun because dinañ taxawaayam biir Banjul ak li moo def outside sax koo xam ne du Banjul because Jawo dafa nekk koo xam ne laa you admire him in so many aspects because like when it comes to cultural affaire cosaan moom da ngaa fa foofu rek la mu ne man dama ko defee dafa versatile when it comes to administration side nga ne waaw kii moom fii la gën a mu ne man that's the most part boo xam ne ni moom laa gën a admire si moom foofu moom dama ko si naw jikko tamit nga ñëw nu moo demee nit ñun xale lañ de waaye daf ñu jox cër boo xam ne nii laay da ngaa fa ne morom lañ ak moom particularly man daf ma dafa nekk si ko daf ma def noo xam ne nii daal xam nga ko olof di waxe rek ñu ne ah, nit ki num la def so xamul noko def num la defata jau num la def si man te du man rek lima la rek jaaw jaaw li mo mbokki gewel di wax ne ndawali gudi la ku lamba daj la da nga ne yow ya uppale lim mel si mom mu la mel si ñeneen si biir ñi nga ñu ngi baax waaw mu nekk ko xamne dal ñun suñu mentol ci ñun particularly man dafa am yu bari ñu dox suma digante ak mom mu def ko yo xamne di, digala bu mo def carrière in banjul in gambia baye den mimi xalé lañ waye pig na ci lu bari té mu def lu rafet mu gëna tam style naaw continuer nonu taxul mu ñaaw musulo di lañ ñaaw mo so ñun fi sak la dal ah ba paré particulier gëna na mo tukki ma dem suyré mo xamné man ko taw mu baye bu lu sét dina ma ko wala du tok ñaari fan ñi di fan te waxuma ne ah naka fi fi rob la de fi isu wut ni di ma advice lo rek daf ma neexoon be ni ma fa nekka be ni ma fa kan, joge mu def gestos yo xamne ne dafa wara joge jógee ñu ñëw Sweden sax dina ma xol ne ma ngi ñu ñëw Sweden de li la loolu gam isi la li ya li nako yi te dafa ñëw ba Sweden isi ko so ma jàpp ko si yooyu yu bëri am yu bari du toog benn bés sax suma ma dina ma wo so jaaw mom, dañ ko ñaanal rek muy xool loo xam ne rek bëgg na ko rek ak euh, kariyaam xam naa ne lu mu bëgg moom biir Banjul moom du ko war a jafe parce que xam am na jaamu bi ak société te moo nit ñi am na jaamaa ñëpp soo jaawo moom dégg na yàlla pour ñu wax si dafa mënuloo mënuloo mënumaa mënumaa wax yëpp in one time waaye ku baax la te kontaan nañ si moom bu baax te ñun ñu ngi xool si moom. si domaine bu mu dem seen bopp. Mhm. ah ñu gis ne euh, ànd neen euh, nga ànd ak jaawa si ay place si ay kër euh, mu dem di nuyoo ñu dégg ne dafa am ay youth work yi moo def ak ndaw yi loolu am na nda amoon. ok ah, gën a tax sax nga gis ko ak ay xale yow boo ñëwee si ngoon ba léegi nii ay xale nga nekk gisuloo ko benn mag bi dégg am du mag waaye personnalité tax na mu jaxasoo ñu bëri. dafa bokk si activités yu bëri ñun dañoo def ay am na groupe yu bëri amul benn groupe boo xam ne na nga ko gis in bañul fii nii doo fa fekk xam ne sama suma maas yi boo ma see dugal dama ne ah bro lii de nii bëgg naa yow sa contribution si lii nga ñëw bokk si groupe def te su contribution ñëwee moom a a am biir bañul fii nii loxo mu ngi si mm-hmm. boo xam ne ñun activité la in bañul fii mu nekk di existe wala groupe te fekk loo fa jaaw déedéet amut amut tey rek yow gis nga maa def présentation boobu noonu gis nga ñi nga am social bi moo daf seen liggéey bu baax a baax a baax a baax bu yàggul nii xam nga si interview mu la expliqué na la ñu fa demoon ñu na ànda woon fële na le loolu yàgg na waaye tax bi mu ñëwee foofu rek bari na si yoo xam ne nii am na yoo xam moo jaar sama dem def loolu noonu daal activités daal ak social moom mu ngi si bu baax Mm, jërëjëf. holiday bi eh, gis nañ ne holiday yi dañ dee bari waaye bokkuñu eh, this year dafa waroon a nekk year boo xam ne semestre bi ñuy bari dañu bari woon you know year bi noo ko gisee ak sa holiday waaw year bi nag ndeysaan eh, ñu génn ci year bu métti métti métti with this pandemic Fatou ñu ñàkk si ñu bëree bëri ma sis opportunity bi pour jaale am nañ ba kër yoo xam ne également fa ba léegi jaale mbokk yi xarit yi am na yi Euh, ñun ñu ñàkk ci mu nekk ak métti métti métti métti and it's been difficult at to so many other families and people euh, wax dëgg yàlla ñaan yàlla yàlla jiitu si xol te yàlla yërëm ñi jiitu ñëpp jégal leen te yàlla daal teggil ñu tam this pandemic loolu la ñu ñaan yàlla waaye Fatou euh, holidays daan daxale man nag soo ba sës fi ne holiday Ah, bi ma ñëwee dafa am ma doon def si lapitaan bi bi ma ñëwee ñu am pour inaugurer loolu muy ah, toilettes yi ma ñëw si sa wàll xam nga sa encore eh, xam naka laa ko da loolu si projet projets yoo xam si involve comme suma own personal project suma ay kër yu maa toppatoo ak yooyu nga dem seeti lii dem toppatoo yi comme yooyu yëpp doo dee am doo am jot yaa ngi understand ah, boo ba pare nga ñëw tombé holiday bi suma raka jabaram am doom loolu tam euh, am na urées yoo xam ne dem naa ma seeti moom yeneen moo ne mënumaa dem soo loolu yëpp daf gis ne ma dama pour pour even try pour ñëwaat ñëwaat yi ne in février au mois ma xam ne mënuma koo jeexal ndax comme jéem jéem ba pare si war naa allah euh, soo da gis ne time bi dee bëgg a am mënuloo ko am ndax euh, léegi-léegi mu am yoo xamante ne planuloo ko mu crop ci te da am pour jéem a seen naka nga dealee with those things. incha allah kon ah, nag suñu gan Sénégal mooy Ibrahima Diawo ah, depuis bu nga ñëwee gis na ne Gambia su semestre di ñëw dañ ko wax indil ma yóbbal. Ah, loo ma indil lii loo ma lële waaye yóbbal ñoom duñ la dee jox yóbbal ñu bari nag waaye du ñëpp ah du ñuy joxee yóbbal depuis bu nga ñëwee yekka buñ a nga ne ah bi de neex na ban la. man nag man ay fii laay lekkee wala suma kër man. yàlla xam nga loolu ah yekkaal bu ñu may yekkaal ah, ah ah ah ah ah c'est goro yi toogal nañu ma c'est boo xam ne. Ah. macha allah Fatamba keroog dama dem ah, indi ji sama goro yi ñu invite ma añ ma ànda suma ay xarit maa ngi siis opportunité bi di leen ñu nuyu ñoom ñëpp jaa waa Jaalo ku na yëndu rawatina seen raka seen caat maama Jaalo ñu ko maama Ndour seen mag ak Kumba seen yaay yaa kër gi keroog ma àndaat suma ay xarit teraanga boo xalaat mu fa. yoo xam ne ak jën yi ma fa gis sifa sifa yeeg tuufa yeeg paañ yeeg yoxos yeeg karaab yeeg yooyu man daal yooyu daal man nga man dama bëgg a ah. ah ñu jinjar yi. njar yi fële bonjo yi di tax loo xalaat macha allah tabaarikàlla ah, mu nekk lu lu ma gërëm suma jabar yi comme pour pour Ali jabaram muy Ami Koole ah, Cissé. wax dëgg mu maa toppatoo bu baax a baax a baax a moom dara manqué suba ma bugg seafood nag ay mm. fry mm. ni maa gis ay naan mbuuru mm. man ni maa gis ay baobab juice ay ditax yow ba ñoo dara man man de man seafood man nga ndawal bugguma ko ndawal ah. moom sawaruma ci waaye seafood moom ah. man xam ñëpp xam nañ ne bi ma ñëwee moom jën rek man suma kali soo soo weeni soo weeni waaw soo weeni lañ waaye nag man du ah. ah, ma lekk bari. man du ma lekk lu bari ah waaw tey de añ man de kontaan naa jin yaa ngi mel ni man. waaw suma sista ko tooga soxna si muy suñu rakk bu baax a baax moo toog ci kaw mu suma rakk. mooy mm-hmm. ah, muy xale bu baax a baax a baax ñu jox ma cëri mag jox ma cëri kilifa di ma xoolee bëti yaay ak bëti ma wax dëgg yàlla maa leen di ñoom ñëpp. ma bëgg laa la tere sa diggante ak ki nga xam ne mooy Niass. Mhm. mu nekk Angleterre bi mu ñëwee si Semester Avenue ah, ah Alaaji Maka Niass ah, di ko nuyu suñu oncle jooju noonu mhm. ah, laajte nañ ko seen diggante ma gis ne Angleterre lu bari dangeen ko dee def. ma bëggoon na xam seen relationship ndax fii la starté Banjul. waaw suñu relationship fii la starté Aji Maka suma mag la Aji Maka dafa ne àddina man maa fi dàqa lu nekk. loo wax rek mu ne la waxal ak yaaw loo wax rek mu ne defal ak yaaw buñ ko ooyoon programme sax war a toog waxtaan mbiri kesaan wala mbiri aada wala nit ne dañ bugg a ñu MCL wala nanga mu ne jox leen jaawa def na ko be xeex na ba Gambian week bi man maay man maa dee kii central maag bi maay eh, MC cultural programme bi yooyu noonu yëpp ci xeexam ak jàppale fii laa xamante aji maay dem school mu nekk fi di ànd ak suñu mag waa yeete yi ñoom Amadou Sira ñu xamante kóllëre gi nekk bi ma demee ne salaamaaleykum Angleterre dama teg suma bagage tey si ëllëg sama kóol tamit ñëw na mu téye ma nag comme rakam ñas du def loo xamante ni boolewu ma fu ko oo ci radio programme wala dara war a waxtaanee history Sénégal bi wala Gambie wala mbiri bànq mu ne jiital leen jàmm loolu nekk loo xamante ni mu rëy rëy te mu mun. li mun xam lim xam ah, ñàkk kañaan lool ci wàlli xam-xam keroog bi ma egsee maa ngi dem turu immigration la ekkati téléphone xool ma ne ma wala loolu seen ma eggalaan la maa ngi biir ma ne ko egsi na xam nga loolu dafa rëy yëg mooy lépp jabaram it nekk ku baax ay rajo yi di leen ñoom tam ñu ngi fi on holidays di ñaanal yàlla ñoo it seen holidays seet a jàmm yàlla delloo leen ak jàmm njaboot gi mu am yàlla teg ci malaani sutura waaye nit la suma kóolare la suma mag la suma xarit la suma lépp la dañ yàgg liggéey ñoo nekkoon interface Gambia télévision in uh, in UK ñu faa def programme tuddee ko Banjul Labour di fa def waxtaan maa ngi am plateforme bu ma créé tuddee ko Banjul Labour da ngaa gis moom li mu mun na ko dafaa record audio def vidéo def waxtaan ci mag ñi yooyu mu ne ma bro yónnee naa la li déglu ko nga ndax amuloo loo ci te li moo def zéro faute waaw waaye bu nga laa cëral rek bu nga jox cër rek loolu ko waral ah, te loolu nit ko oyof rek mooy mel nii leen war a def Gambie ñu ni neen nañuy liggéey nen nekka benn bokka ndey bokka baay moo gën giiroo ñaaroo wax naa leen ko soo toogee rek kii de su ma ko jàppale wu dem yàlla yaayam ñaanal na ko dafay dem soo ko jàppalee nag sawa nga bokk si history am xanaa ni <coughs> Ibrahima Diawo fu mu nekk nii nag jël naa sa time bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp laa jël soo leen nekkee si télé bi au ami Angleterre foofu noonu ngeen a nekk di euh, wax yëf history ak yooyu man nag fii sabilillah la. man nag ah. kenn la noonu. Ah, yàlla dafa def ñun duñ géwél géer lañ. Mm-hmm. ñun lépp luñ sol sa farsamba ñu génne ko ci tey bu ko nit a bëgg a def ñu génne ko. waaw ñun ñooy jël suñu alal di ko ci def. may ligay at niya sa ligay at ka aming siri. Aming siri na kami? Wow. Mama ah, uh, jikiri yu radio, radio di yu. Sumaya anti bo pala wadi ka na yara. Uy jigen yu baha baha nyu deka bena deka imatina. Deko nuyo jabotan yep mo. Mi ligay ligay burafe. Why xam nga li nga wax ne nit ki kuy seet sa diisaay doo xam du la yërëma en suuf ndi xam nga suñu xoolee ne yaa ngi am sa moto yaa wala am nga sa xaalis yaa ligay liggéey yaa ngi lii te léegi-léeg ñu ne la ah dañ bëgg a defal ñu programme bi wala nangam waaye nag comme cultural bi bi moom ak yooyu dinañ yëkkati njoog maali maa koo génn dina yëkkati xaalis jox la ko dégg dinaa dem yóbbu suma njaboot bi yóbbu suma xale yi pour ñu dem seetaani fekkee nga jël ay hôtel wala stay si family xam nga booy dem am loo yóbbuwaale ak yooyu dinañ yëkkati jox la moom waaye programme yu bëree bëri comme history ñoo def léegi dañoo toog nit xool ñu ne dañ bëgg a ngeen waxal ñu naan wala defal ñu naan waaye yëpp fi sabili laay lañ ko def ndax dara ñoo ñu réew ak mbiri Gambia te buñ nettali bu baax baax li amoon démba kon a bés ni ki tey may sama ku ko daal ñëwal sama néja fii sabilillah moo ko war a dee fii sabilillah yóbbu dëkk nekk ku soxla wati Onko Jaawo daal Ibrahima Jaawo ñëw si man ma caaj leen ay one hour ay thirty minutes baat bi lu mu gën a si kaw rek ñu gën la koo caaj xanaa ne nooy sa boppa man toogee dama ne man may Samba ma dégg nag saa su ne suñu last épisode bi moo nekk loolu dañ lay laajte ku nga tagga sa bopp am na ñoo xam ne mënut a tagga seen bopp. man nen dem. man suma baay jaaw bannaa la. Ah. fula foro mooy suma baay. su man ndey di xoro jël mu buur a wàlli mbergaan ak ma ca xaalis Ali ma des kawul ñun ci ñu nga bo ñu nga bo ñu nga jógee ñu nga jógee Saalum ca buur buur buur buur mbegaan bi wala suma wàll yaay jóge suma maam bi jur suma yaay ma jaxate jaxati kaba ma yére mi nga xamante ne moo doon jaajanti moo doon jaajanti sëriñ si di aate doonoon ni koo xamante ne xamoon li ci biir téere ak li ci gannaaw téere nga ñëw njóobeen ñooñu ki jur mari ki jur euh, jur suma maam yaay mooy mari ji baan jóob ñooñu ooyee euh, euh, naka lañ ko wax ñooñu njóobeen ñi nekk kajoor ñooñu ñooñu ñoo ñoom la ñoo wax ne seen maam Lat Joor moo daanu dex kon xam naa sama bopp bu baax a baax. yow kenn du ah, na kon nag a Diaw ñu closé li nga xam ne moo nekk Semester Avenue ñu yàgg laa topp ne yàlla ñun dañ dañ koy xool di get inspired every day. wax dëgg man koy wax nag all the time suma bopp moo ma dee wax mu ne yaa. ma ne naa mu ne eh, doo dee nga ne diw neex na ma parce que damay teg suma time. waaye eh, tey nag I would say mm-hmm. eh, nga mag boo xam ne ñun bu ñoo bu nekk ndaw. xëy na ñun deful ak yow dara amul dara lu def ak yow. waaye Facebook boole nañu. liggéey tam boole nañu. nga nekk mag bu oyof oyof oyof oyof boo xam ne ah, man sax tey interview bi xaw naa rus after soo paree dama war a insta <laughs> di oncle di oncle di you know what I'm saying ah so yàgg nañoo bëgg a ko nañoo. nañu si semester avenue bi yàgg nañ koo train every time laa gis nga ñu mën a ñu tam jàng si yow noo gisee semester avenue ah, kontaan naa this is an opportunity te li feeñal la am na lu bëree bëri wax naa ko fi loo xam ne waxuma ko fenn amul fenn fu ma ko fi yaa am the exclusive uh, aspect of that uh, ñu kontaan ci Gambian uh, Talents Gambian Talents promotion ak Gambian Talents yéen ñëpp TV Van Samba yow ñu ngi laa xaasal Euh, dañ dee wax ne caxaar lu mu foor foor digal baa ko gën a foor euh, nga nekk xaleel seet loxo wala day fuloo dina seet bu baax yoo xam nga ne léegi-léegi nga def dara ma ne la faatu lii wala leen laajal Pa Ousmane ci boppam Ousmane ak Aliouma maa ngi ko nuyu Pa Ousmane Diouf nuyu Binta ak Ibrahima Sadio mi ngeen àndal seen team bi yëpp kontaan nañ bu baax a baax ndax yéen li ngeen a feeñal ci euh, ci semestre avenue ndax ñun ñu bëree bëri ñu ngi nekk ñu bëri xamuñu li fa def te baax na pour yuut si nekk fii ñi bëgg a ñëw tam ñu xam li ñu ñu jàppoon te biñ nekkee fële ak lu leen naka ngaa def loolu yëpp dafa ah, daal yàlla leen leen bàyyi yàlla bi am te yàlla leen yàlla feer boo xam ne toog li ci xool bi yàlla xam na ko te jàppoon naa bëgg a ko ñu toog waaye yàlla dogal ko booba digee saa yu ma ñëwee ne ma nañ am service avec yàlla dogal ko yàlla ko doon dugal di dogal ko tey jii fekk sax bi di xam ni ëllëg ngénte la fi ak ñuy noonu yëpp bëggoon naa ñu toog suma kër ñu toog def lépp wax diggaan yàlla waaye nga ñëw fekk ma fii ci kër famille bi muy li ma sas yàlla kontaan li ma la wax fi ma waaye kontaan bu baax a baax a ci programme bi dina gërëm di gërëm bokk seetaankat yi bu dee wax naa fi loo xamante ni safaan la wala ayib la ñu bu baax a baax a baax a baax xam ne suñu coobare wallahi azim waxuloo fi dara lu ñaaw ah, nii la Gambie dañ war a di waxtaan ah, nañuy waxtaan di diisoo xam ne dëkk bi suñu dëkk la su ko Sénégal mu ne def ah, te dara jëmul si Gambie mun nañ koo def suñu last part semester avenue ah ñu ne naka la defante segment ah te gars yi dañ dee wax ne naka la soo amee gan da nga war a defante sa gan xanaa ne mun na dafa dégg daal xool leen fii a ne ko dafa dégg galan ah lii dafa ne waaye Gambians I just take this opportunity uh, ku di leen wax Semester Avenue is here just to have fun with people uh, gis naa ne saa su ne sometimes you def and you know ne faatu dafa yàq yar nee na ñu ne Fatou lu tax muy laajte question bi ay naka ko ciisee si la bokka gis nga ñun ndaw leen ah, te ëllëg dafa war a neex a neetale tey Fatou su waree am jëkkër dina xam ne ah suma baay ji de toogoon na mu ne suma yaay lii ak lii la def su ko defee man it su ma demee dugg si léegi si dinaa xam ne ma ko defee xam ngeen ne te lu fi oncle Ibrahima Diawo wax nii ah ndaw yu bari ñun si biir dëkk bi nee yaa ngi si wàllum politique yu bari na fi ndaw yu bari ñu ngi si biir dëkk bi nekkul ni def dara amul ku leen inspire so Semester Avenue is here to change the people's life it's here ko fàttali leen démba wax naa leen ko tele yu bari leen waaye duñ niroo waaye xool leen bi ah di leen ne thank you very much kon nag defal na sa biir baa ngi ni xool leen ni ñoo defantee Fatou ñu jaaru ko woon sa la ngeen jël li ko xool leen mu ne jaaru oor xam ngeen ne nag yàgg naa indi waaye mosuma am or. ah la ah, or la li ngeen def ko lii pour yéen la. Ah. pour Gambian Talents ma leeral ko pour am ah, na solo jërëjëf xoolal lii ma ne ko xoolal lii a ak jaaru or gis ngeen nag naka la monsieur Diawo lii dama koo last week dama doon waxtaan la sama boppam mi ne ma. maa ngi toog di seetaan seen semestre awee yi su naa ngeen dem si airport yi ngeen toog semestre yi ana yóbbali ak yi and ma gis ci di comment lu tax ngeen a wax yóbbal ak yooyu gis nga Gambie li leen xamoon time boobu ma ngi démb dangaa dem seen kër sa amul dara ñu nekkati benn dërëm jox nga dara yóbbuwaale dafa nee day euh, ko seeka ma seetaan télé Sénégal nga ami koole mi nga xam ne woykat la me ne Youssou Ndour dama bëgg nga may ma moto loolu dañ koy gis dafa ne ku la ëppale na la may yow na may keneen keneen may keneen dëkk bi dem ñeeyaate bu bari di leen war a bàyyi nañ mayante ñun leen xam journaliste dañ koy mu tedda xanaa neex ayo sama oor yi a ma jël ko nag lakk ko dañ nekk bu baax balaa gars yi di ma lii xam dëkk bi fu mu nekk ah maa ngi nii yow daal fu mu nekk gisante la Adama Barrow loo leen waaye yéen a xam loo leen bëgg a waaye a ko xam xanaa neex jeex na kese <laughs> Supersonix Money Transfer ñoo dellu si waat indi leen xéewal bu neex a fii ba weeri octobre di jeex waaw fii ba weeri octobre di jeex mën nga am sansuwin benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis Gambia bàyyee ko sa UK Europe US Canada ak Switzerland ak Supersonix Money Transfer <laughs> halali ne khatina do ko tey ba weri october di jeex mën nga win benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis fii si biir réewi Gambia bàyyee ko UK Europe US Canada ak Switzerland téeméeri saako maalo ñoo fi nekk kon gaawal nga bokk si téeméeri nit yi nga xam ne mën nga am sans win si xewal yi nga xam ne kenn dootu ko naataable ak Supersonics Money Transfer bànneexu ci suñ yónneekaay xaalis bi gën a wóor gën a gaaw gën noppale ak yónneekaay xaalis bi gën a màgg si biir réewi Gambia te duñ la fayeeku dara Search leen ñu si Google Play Store wala Apple Store nga muna a bindoo si suñu app bi di Supersonix Money Transfer app Shoo, cay bii xéewal ak Supersonix rek. Supersonix. You want to know about the Gambia entertainment industry. You want to know the existing policies and programs of the arts and culture sector. You want to know about the governance and management of the arts associations. The program will throw a fresh light on the entertainment industry in focus. We will touch so many angles about the cultural sector, the opportunities and challenges, and interrogate them and most importantly, offer solutions.